نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عبادنا الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokku jullit yi mbokki auditeur auditrice Manor FM 89 point 4 di kàddu soxna yi di bàyyi ko fii ci rond point Zeddo mu dellusiwaat seen émission Minbarul Mourchidine mu doon émission boo xam ni rajo bi dalañ koy amalal ajuma ju jot 3 heures jàpp 5 heures ngeen ci ànd ak seen mbokk maam Cheikh Lo mu feggoo ak mbokkam xaritam Pape Cheikh Samake moo nekk ci wàllu xarala gi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaanal mbokk yi nga xam ni yàlla dafa def ñu génn àdduna ñu leen di ñaanal yàlla xar nañ àjjana di jaale seeni mbokk mbokk yi nga xam tamit dañu feebar nekk ci hôpital yi ñoom it ñu ngi leen di ñaanal yàlla saafara leen ba ñu delluwaat seeni njaboot ñi ci kër yi ak ñi ci mbedd yi yëpp te am ay jafe-jafe ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu yombal lépp mbokk yi nga xam tam dañ ne ci kaso yi amit ñu ñaanal leen ñu ànd ak ngëm te yàlla génne leen ak jàmm te ñu bañ a defati la leen fa dugaloon ginnaaw loolu ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu soxna Maguette Dieng moom mi nga xam ni mooy njiitu rajo bi ñu ngi koy nuyu baax di ko ñaanal di ko ndokkeel ci guddi Seydina sallallahu alayhi wasallam gi nga xam ni moom nañu génn barki démb te ba léegi ñu ne ci weer yi ñu ko ci ndokkee lu baax di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala jàppale ko ba lépp loo xam ni yéene nu ko yàlla defal ko ko ñu ngi nuyu tamit soxna Fatima Kane di ko sant bu baax moom di ko ñaanal ci taxawaayam wax dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu lool ba tax na sax tey suñu invité mi al oustaz Seydi li li moom yàlla def na ci yombalam ma ci ci lañ mën a jotee ci moom kon soxna Fatima ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal ginnaaw loolu tamit ñu ngi nuyu auditeurs yëpp fàttewuñu leen ndax saa su ne dañuy topp ci émission bi ajuma ju jot am ñu seen fay ndax dañuy bàyyi seen yitte yëpp du ñu déglu du ñu woo di rafetlu li ñuy def kon ñu ngi leen sant bu baax ñun ñëpp di leen gërëm di di ci jiital Serigne Papa Laye Ndiaye moom rajo bi xam nañ ko fidèle auditeur la. ak waa jataay bi yëpp nga xam ne ñoom lay toogal ñoom président ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant ñoom Ndeye Fatou Ndiaye ñoom Yaay Fatou Ndiaye ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu. ñu ngi nuyu itam Abdoulahad Dione duñ ko fàtte sama maam soxna Jongu Baaba suñu waajur soxna Fatou Seck ñu ngi koy nuyu moom itam duñ ko fàtte. ñu ngi nuyu tamit Serigne Mor Niang Mbacke Bari ginnaaw Ray Sud moom it day topp émission bi saa su ne ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko ñaanal. Baye Modou Mbaw moom it duñ ko fàtte Souman Mbaw ñun ñëpp duñ la fàtte Babacar Diouf rawatina du ma ko fàtte ak al oustaz Mouhamad Gueye moom tam duñ leen fàtte ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm soxna Mbène Lo duñ ko fàtte moom mi ngi tëngee fidèle auditrice la day topp émission yëpp moom it ñu ngi koy nuyu di ko sant di gërëm. ginnaaw loolu al oustaz ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci wax dëgg yàlla ak ajuma ji ni mu xatee nga jóge ci. julli rek ñu wutal si fii mu doon ay xat-xat yoo xam ni wax dëgg yàlla bala neexoon ma mën na la ci bañ a fekk waaye lépp rek ngir diine ba tax nga bàyyi yëpp ngir wuy si ñu loolu am nañ si mbégte mu réere yi ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal jéegu yi ñëw jéeg dellu yëpp yàlla na ko yàlla boole def yiw kon xam naa oustaz ngir ñu bañ a guddal dañ lay jox nga nuyoo bu ñu paree incha allah ñu dugg ci mawdon bi comme ni ñu la ko waxoon al mar'atu fil islam jigéen taxawaayam ci diine islam ndax jigéen dafa doon lu am solo loo xam ni war nañ ko di ko bàyyi xel ndax ginnaaw moom maanaam école la boo xam ni day jàngale day yare kon lépp lu ci génn rek war nañ am ci moom yaakaar ba tax na incha allah tey suñu waxtaan foofu foofu la jëm kon xam naa dama lay jox nga nuyoo rek boo nuyu incha allah ñu daal di tàbbi ci waxtaan wi am na ay tomb yoo xam ni wax dëgg yàlla indi nga ko mu doon loo xam ni incha allah dana am solo kon mbokk yi xam naa ci kanam rek incha allah dinañ ubbi téléphone yi ñu xaar ci kanam rek incha allah nañu ubbi téléphone yi ngir ñu may ko li mu indi incha allah donte du mën a kii lépp nda waxtu la waaye di ci gën a am solo rek incha allah mu mu indil ñu ko kon al ustaas tafadal maskuran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلم وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk julit yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam ñu ngi leen di nuyu nuyoo waa aljanna ñu ngi leen di ziar di leen baalu aq di ñaan bur yàlla tabaraka wa taala yal na yàlla jéggal ñu sunuy bàkkaar ñu ngi ziare cheikh bi nga xam ne moom moo ñu invité fi tey ak doomu ndey bi nga xam ne moom la wax muy soxna Fatima ñu ngi ziyaare mbokk jullit yëpp di leen baalu àq di leen ndokkeel ci weeru màgg wi nu nekk di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu al ustaas nuyoo bi am na solo mat na mat la na ñu ngi sant bu baax a baax comme ni nga ko waxee soxna Fatima ñu ngi koy sant bu baax ndax yombal bi ci wax dëgg yàlla ci moom la jógee kon soxna sa ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm al ustaas comme ni ñu la ko waxee woon rek maanaam mawduu bi al mar'atu fi islam jigéen ci ci diine islam ndax góor mënul dem bàyyi jigéen jigéen mënul dem bàyyi góor te jigéen tam te am na ci taxawaay bu am solo boo xam ni ni ko góor amee noonu la ko amee moo tax tey ñu indi buntu boobu ngir fas yéene ko waxtaan ndax tamit rajo bi comme ni ñu ko ginnaaw rajo jigéen ñi la war nañ di leen ci leeralal ba ñu xam fan lañu war teg seen tànk ngir bu ëllëgee ñu mën a am maanaam fay goo xam ne fay yàlla subhanahu wa taala la kon kon oustaz xam naa kon dama lay jox kàddu gi jërëjëf jërëjëf oustaz jazakallahu xeyran dañuy wax ne tey àddina bi bu nu déggaloon lislaam kon jafe-jafe yi jigéen ñi dund tey duñ ko dund ndax jigéen mbindeef la bu yàlla bind jële ko ci góor yàlla ba mbindee ñaari mbindeef yooyu muy góor ak jigéen yàlla indi leen benn programme bu ñu war a dund ci kaw suuf yàlla tudde ko lislaam kon ñoom ñaar noo ñooñu bu ñu jógoon di dund loolu yàlla programme leen ñu dund ko kon du ñu am coono coono gi nag mu ngi mu ngi mu ngi déparé yàlla programme yëfam ne nii la nit ñi ñëw ne ko du noonu te jigéen moom mooy genn wàllu société comme ni ngeen ko xamee yéen yéenay boroom xam yéenay wax al mar'a nisful mujtama jigéen mooy genn wàllu société jigéen mooy nekk yaay jigéen mooy nekk soxna jigéen mooy nekk doom jigéen mooy nekk rak yu jigéen jigéen mooy nekk yarkat jigéen mooy nekk jegeñaale jigéen mooy nekk jàngalekat jigéen mooy nekk nàmpalukat soo xoolee lii yëpp ñu wax borom bi subhaanahu wa taala teral gi nga xam ne moom la teral jigéen ak fonk bi nga xam ne moom la fonk jigéen ndax alaa yaalamu man xalaq wa huwa latif alxabir yàlla mi xam moo bind tey bagage yi ngeen yor ci rajo bi benn bu ci nekk dafa am place munul jëriñ fenn fenn fenn furul fi ñu ko placé liñ ko soxlaa rek bu ñu ko buggee jël yóbbu ko feneen problème rek lay jur kon rajo bi duñ ci wax tey jigéen kazalika noonu la yàlla tabaraka wa taala moo bind aadama bàyyi ko biir aljanna yàlla toog ba mu neex ko mu bàyyi aadama yi nelaw ci biir aljanna mu far mu xar faaru góosam bi génn ci soxnaam bu tudd xawaa aadama bi mu yeewoo ci nelaw mu gis ku jigéen ki toog ci wetam dañ ko examiner moom aadama ne ko kii lan la mu ne jigéen nu mu tudd mu ne xawa lu tax noo xamee tur bi mu ne dañ ko génn ci luy dund ci moom lañ ko génnee aadama awa ñu ngi ko génne ci faaru góosu aadama ñu laaj ko nu mu tudd mu ne xawaa ñu ne ko lu tax nga ni xawaa mu ne c'est parce que dañ koo génne ci luy dund moo tax mu tudd xawaa borom bi tabaraka wa taala nag ne leen yéen ñaar yéen laa programmé pour yéen ay nekk yéen ay jur mbindee fi ci àddina bi yëpp yow aadama yàgg awa ci biir programme boobu yàlla tëral leen yàlla boole leen ak diina ji tudd lislaam pour ñu war ko dund yàlla wax jigéen gi nu muy dundee ci diina jooju ku góor ki nu muy dundee muy aadama ak awa kon lislaam aw dundin la suñ ne al mar a fil islaam mar a mbindeef la lislaam aw dundin la kon ku jigéen ki moo war a ñëw dund diina jooju mu nekk lislaam lu njëkk moom ku jigéen ki mu nekk yaay yaay mooy kan mooy ku am boroom kër di dund ak moom war a ëmb doom doom jooju mu war ko jur fan lay déparé mooy moom ku jigéen ki balaa muy ëmb doom jooju lay defar doom jooju balaa doom jooju di ñëw ci kaw suuf moom ku jigéen kooku moom ku jigéen kooku naka lay defare doom ji mooy moom day defaru ba pare doog a defare faaqi faaqidu shay laa yuti ku amul doom maye ku baaxal munoo baaxal ku jigéen kooku dafa war a baax ba pare am doom baaxal doom ji moo tax ñu ne ko balaa muy sëy na tànn boroom kër bu baax ku góor ki balaa muy am jabar na tànn jabar ju baax dafa am benn waay bu am doom ci salafu saalih la wala ñenn ñi ne ci yonent bi lu mu ci mën a doon lu am la bi mu amee doom ji ca bisu ngénte li mu jël ko yóbbu ko ci yonent bi ne ko yaral ma ko ñu yonent bi ne ko yéex na mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah kii juddut barki démb tey mooy bisu ngénte bi mu ne ko dafa yéex mu amaat doom ca bis bu mu juddoo xaarul ngénte mu yóbbu ko ñu ne ko yéex na wala ca bu mu amee ñetti fan mu amaat ñetteelu doom ci bis bu mu juddoo rek génne ko maternité rek yóbbu ko direct ci yonent bi ne ko kii nag moom yéexul mu ne ko yéex na mu ne ko ah jaaxle dugal na ma xale yi kañ lañ leen di yar mu ne balaa ñuy judd loolu nu mun a nekkee mu ne nga tànnal leen yaay gis nga foofu mooy programme bi góor day tànnal ay doomam yaay jigéen day tànnal ay doomam baay arab yi dañuy wax ne bu fekkee borom kër gi mooy sabaru isa kaana rabbul bayt bi duf fi daarib bu fekkee borom kër gi mooy sabar doom yi nu ñuy def kullum raqs fa siimatu ahlul bayt kullum raqs kon mandarga bi ñuy xamee waa kër gi mooy feccaka taasoo ko coppi coppi loolu mooy liñ dal tey ji loolu mooy liñ dal ci àddina yaay joo xam ne islaam dafa bëgg yaay yaay joo xam ne ku ko gis xam ne kii yaay la benn borom xam-xam day wax mu ne dañu war a xàmmee ñaar jabar ak soxna mu ne soxna baat la bu génn ci fital pistolet ak mëq doom la ñuy jël sox ko bu ñu génnee sox wañ ca def ñëpp dégg mooy baatu soxna maanaam fetal gi sox nañ ko lañ ci sox bis bu génnee ñëpp dégg la la génn loolu mooy soxna loolu mooy doom loolu mooy jabar jabar soxna si boo ko amee ba dund ndoog moom ba mu wanu lor bis bu amee doom doom jooju ñëpp dégg ko loolu mooy baatu soxna islaam dafa bëgg bépp yaay nga nekk royukaay moo tax yàlla tabaraka wa taala jël doom dénk ko jigéen jox dénk ko góor ku góor ku jigéen mooy ëmb mooy aar mooy nàmpal mooy wattu yàlla jël jigéen dénk ko doom pour ëllëg ak si biir jox ko góor moo tax yonent bi saa salaam mu ne bu la sa yaay woowee sa papa woo la koy dem mu ne wuyu sa yaay ñaata yoon ñetti yoon ñeental ba ne wuyu sa baay kon ku moom doom jigéen yaay moo tax yaay ji ñu war a préparer fi muy nekkee yaay yaay ak la ci aju yaay ak la ci ànd yaay ak bu préparer bu mu war a préparer doomam yar bu mu ko war a yar wàññi bu mu ko war a wàññi jàngal bu mu ko war a jàngal dafa am benn sàcc ci Égypte dafa sàcc sonal nit ñi ñu jàpp ko jugé ko biñ ko jugé ñu tëj ko peine bu metti mu ne ah li ci des day biñ ko nee léegi loo ci xam mu ne sama yaay foog ñu indi ko daggalamiñ bi ñu ne ko subhanallah sa yaay lu mu def sa yaay sàccu mu ne ba ma njëkkee sàcc ci sama ndaw ci sama àdduna sama yaay dafa sara xoole ne sama doom ji mat na góor kon jigéen ci façon bu muy nekk yaay islam daf ko war a préparer wala gis nga yàlla tabaraka wa taala mu jël saarum lëmm jagleel ko jigéen ñi ci quran suratu nisa suratu rijal amul am na alquran 114 saar la amul suratu rijal mais am na suratu nisa bal am na jigéen sax yoo xam ne daf leen def modèle indi leen ci alquran tudd seen tur xoolal mariama ah kon borom bi tabaraka wa taala lu mu def mooy dëgg ndax yàlla moo xam yàlla bind yàlla bu nee nii la noonu la su nit ñi bàyyee loolu problème mooy am moom tey ni problème amee ñaareel bi mooy jigéen mooy nekk soxna mooy nekk zaw ji jabar kon dañ ko war a préparer balaa muy nekk jabar xoolal gis nga tey bokk na ci problème bi àddina bi am muy ay sëy tey boo demoon tribunal problème bi nga fa njëkk a fekk ñaar la miraas ak sëy ak sëy sëy da ngay gis léegi sëy deux mois deux mois sëy bi tas léegi loolu loolu loo ko mën a justifier xam nga ne kooku tànnul ku jigéen ki tànnul ku góor ki tànnul wala ku góor ki bu tànnee dafa juum ca lam doon tànn parce que du ay greffage la ñuy takk jigéen du xeesaay du këlëru yaram du yëre laa loolu mazahir la loolu da nga koy simmi teg fee nit lañ koy tànnee du ko simmi yonent bi saa salaam bi ñu ko ne jigéen ñi dañ leen di denc noonu leen di dencee mu ne tunkahul mar'a li arbaa li maaliha wa li jamaaliha wa li nasabiha wa li diiniha mu ne fazfar bi daati diin taribat yadak am na ñuy denc ngir alal mu ne waaye day jeex de am na ñuy denc ngir taar mu ne ah am na ñuy denc ngir askan yax bu rëy kooku boo dee mu nga mu funax ñu ne waa yonent bi mu ne ñun de diine la ñuy tànnee ñun waa lislaam diine képp ku jël jigéen ju am diine mu ne mu yem say loxo tey nag lii defar buñ ko bàyyee ginnaaw loo xam ci mbir mi Sénégal bokk na ci tax mu tardé tey mooy diine diine la nit ñuy fowe diine lañ mu jël diine lañ sànni fële moo tax nit ñi mënuñu baax parce que diine dafa ñëw pour defar nit nu alal du defar nit am am du defar kenn yax bu rëy du defar kenn bu doon loolu abu abu jahal jub Qurayshi la moo ko yonte bi ñoo bokk deret abu lahab safara la fanaan fa la yendu heure bi may ñëw fa laa ko bàyyi tabbat yadaa wa tabba ma agna wa ma sa yasla ma nga safara te mbokk yonente bi la bilaa lu mbokk ak yonente bi nit ku ñuul nekk éthiopien mais tey suñ ne bilaal ñu ne muazzinu rasul xoolal grade bi mu tàkk bal yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa xëy suba ni ko waaw bilaal kaay bilaal ñëw mu ne ko bil baariha daxaltul janna fa sami'tu xashxashaka ya bilaal bi ma sabaqtani ila aljanna noo ma jiitoo aljanna yow bilaal allahu akbar te nit ku ñuul la africain jiitu yonent bi sallallahu alayhi wasallam biir aljanna bu yonent bi yéemu ñëw ne ko dag maa jiitu mu ne ko musuma jàpp lu dul ma julli ñaar raak musuma nodd lu dul ma julli ñaar raak nit ku ñuul ñee xees fecc xonk jur nekk ay Qurayshi mais ña nga safara kii nekk aljanna nekk ñuul kon diine du du du yaram du couleur du dëkk ci gox du am sant du am tur diine melokaan la bu nit di mel di ko dund aw dundin la wu nit di dund soo ko melee nga baax soo ko melulee ak ku la mën a jur du baax Firawna ana jabaram ma nga aljanna nu ana jabaram ah loolu loolu mënu la waru mun nekk est ce que xel nangu na lool jabari yonent nekk safara jabari kàccoor bu tol ne Firawna nga xam ne li mu wax ci àdduna kenn mus ko wax maa alimtu lakum min ilahin xayri ana rabbukumul aala iblis sax dégg naa bi mu ne ana rabbukumul aala dafa tëbb ci kaw daal naa maa fi gën a kàccoor waaye li mu wax musuma ko wax ndax man waxoon naa inni axaafu llah rabbal alamin iblis loolu la woon inni axa inni raaytu maa la tarawna inni axaafullah kee nag ne ana rabbukumul aala kon ku gën a garaaw firawn mais xoolal jabaram mi ngi aljanna mais lu tax parce que programme bi Moussa indi woon di defar jigéen moom la ndaw si dund yonent yàlla noox yonent la yàlla ko yónni jox ko mission bu mat mu nekk ulul azmi mina rasul yàlla jox ko programme jabaram lànk ne du dund programme bi yàlla ne daraba allahu masalan lilazina kafaru imraata nuuhin wa imraata lut كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما خلا نيوم ñaar li ñi baax baax yalla mu ne falam yughniya anhuma min allah shay wa qila dukhulun nar ma ad-dakhilin kon nit ñi dañuy joom chaque jour nit ñi dañuy dëkk ci joom parce que yalla moo moom yalla borom la yalla du morom yalla moo nu bind indi ñu ci kaw suuf ne nii ngeen di def bu ngeen bëggee baax bu ngeen bëggee àdduna bi jàmm am fi su ngeen bëggee baax yàlla nee na diine islam dong moom la ñuy dund leneen lu ñu war a dund ci kaw suuf dañuy indi problème rek du ñu baax mukk mukk mukk mukk mukk kon jigéen en tant que soxna bu góor war a takk indi ko biir këram mu war a dundandoo ak waa jooju war a am ak moom ay doom war a yar doom yi fan lay jëlee loolu la ci lislaam mooy yaay ja yaay ji fan lay jëlee lu muy def nekkeeg borom këram fan lay jëlee lu muy yare doomam ci diine xam nga yaay yaay ju yar ngeen baal ma yaay ju yar doomam ci duul duul xale buy nàmp nga naan nee nee leen duul mu naan duu ñu naan dégg nga mu ngi commencé jàng wax xoolal lislaam dane xale buy jàng wax na nga ko jàngal laa ilaha illa allah la mu koy fawee est-ce que ñoom ñaar programme bi benn la du benn xam nga li gën a garaaw ci ci àddina bi tey démb dama ko wax ay nit ñun dañuy yor ay daara di jàngale et composition bii passé nii bi Sénégal gi yëpp def waa CP xam nga bokk na ci seen programme lu ñu leen nil bëre mbër ay mbër naxuma la de wallahi ñu ngi may dégg ci rajo laa nekk bu fekkee du dëgg balaa may jeexal émission bi nañu moo war téléphone waa CP seen programme ci biir composition bi def ci am bëre dañu wane kuy daw daan bay daw ñu wane ku ñu daan ñu wane arbitre bu yëkkati loxo ñu ne xale bi numéro teel yii 1 ba 5 la bu ko defee ñu may ko 10 lan la ñuy jàngal foofu bëre day defar nit fo fekk bëre ci li yàq Sénégal la bokk bu njëkk ba bu ñuy xas jigéen dañ naan ko loo dee dee war ngaa jur mbërum làmb buñ ko doon xas dañ naan ko loo alku alku xanaa bokk war ngaa jur mbërum làmb tey bu ñuy tagg jigéen dañ naan ko war nga jur mbër nan yàlla jubal programme bi yàlla indi lañ bàyyi moo tax dëkk bi alku te du baax nag dañuy sonn dong yàlla dafa def sunan xam nga loolu ñu naan sunanullah ay yoon aw tëralin la yàlla tëral avion sunnaam mooy day naaw rek oto ci suuf lay daw rek otoraay ci raay lay tegu léegi nag bu otoraay ne damay naaw oto ne ci raay bi lay tegu avion ne ci suuf si laay kii bato wàcc géej gi fu jëm moom la moom la ñuy nekk tey mooy dañuy dund di làmbatu te aw yoon la mbir mi am bu ci nekk yoon lay jaar bu ci wàcc yoonam bi dara du baax yàlla tabaraka wa taala mu tërale noonu àddina bi yàlla mu ne alaa yaalamu man xalaq wa huwa allatifu alxabir ah man yàlla maa bind maa xam man yàlla mi xam li ma wax noonu la su ngeen lànkee tam da ngeen di sonn yàlla yonent bi wax na ci hadisul qudsi ya abd anta turid wa ana urid fa in aataytani ma urid aataytuka ma turid fa in naazatani fi ma urid atbaatuka wala yakunu baada dalik illa ma urid yéen samay jaam da ngeen a soxla ma soxla ma bind leen su ngeen ma defalee man yàlla li ma bëgg ma defal leen li ngeen bëgg bu ngeen lànkee bañ a taxaw ci li ma bëgg ma sonal leen ba seen i baqate ne bàcc te dara mbir mi lu mu yàgg-yàgg man yàlla li ma bëgg doo nga yem waaw waaw kon kay dañ def li mu bëgg rek benn yoon ñu noppalu mbokk yi ñetteel mooy jigéen day nekk doom doom day am ndey ak baay su fekkee jigéen day nekk doom war a am ndey war a am ñaari waajur ci programme bi mu war a dundee moo ñaari waajuram yooyu ci diine la ko war a jëlee dégg nga wax bi mais warul dund programme maman tu moi papa tu moi lu wax ak sa baay ne ko da ngay fen tubaab bi loolu la ñuy dunde tu moi ñu ree ah kontaan xoolal sa pap ñun duñu doolu ñun ay jullit lañu ñu xam nga lañu dund waxfat waxfit lahuma janaha zilli min arrahma wa qada rabbuka alla tabudu illa iya wa bilwalidayni imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima programme la waaw programme islam la ah.
programme mu diine la na boo nekkee doom nga nekk jigéen nga dund ko mais doom yoo xam ne sam waay danañ yàlla musal da ngay jàpp seen digg naan waay maire bi li mu doon dund dund na ko ba pare maire bi xoolal daf may tere ma live man dama koy dund dangal ba mu dang rëdd ba mu xonq tegu ci tali bi moo tax say bët fa day xonq rek waaw waaw waaw waaw.
bët yi day xonq rek mbokk yi parce que li nga sombi doo doo ko naan déedéet mënoo ko.
yàlla moom moom àddina bi ñun moomuñu ko déedéet te rëdd- foo loolu leer yàlla dafa bëgg ñu dund diine gis nga doom ji yàlla daf ko wax nu muy dundee ndeyam ak baayam wa in jahadaaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tutihuma waaye wa saahihuma fi dunya programme la
est-ce que mais bu fekkoon ne du programme buy dund xoolal sa papa ak sa yaay danga naan non da ngay fétteerlu teelul
da ngay ral waaye yàlla mu ne wa saahihuma fi dunya maarufa wattabi sabila man anaba ilay kooku mooy doom ji programme bi mu war a dund war a dund.
yàlla nee na yàlla daa jël ndey ak bàyyi laxas ba mu dëgër ambale ba mu rafet mu ne am doom téyal ma leen ndey ak bàyyi dénkaane lañ Mhm, waaw.
wa qadaa rabuka an la wa wassayna al insaana bi walidayhi Mhm, wa wassayna al insaana mhm.
bi walidayhi xamalatu ummuhu wahnan ala wahn yàlla mu ne yow yow yow yow xale bu góor bi yow xale bu jigéen bi Mm.
sa ndey ak sa bàyyi dama leen kaw dama la kaa dénk ndax sa ndey ji bi mu lay ëmb Mm.
ci ay coono rek la la ëmbee kañ la gën a normal ba mu demee passé ji visite ñu ne ko da ngaa nekk en état la gëj a normal léeg-léeg sax ñu ne ko du lekkati xorom léeg-léeg ñu tere ko ay mbir yu bari même ci colom sax dootul sol ni mu bëggee Mm.
day changé colin nga gis fe- feebar commencé am na ñoo xam ne ba keroog ñu am doom ci lal hôpital yi la ñuy tëdd kan moo waral lool yow doom ji xoolal bi ngay judd yow fi mu nekk ni ñaata nit nga xam yoo xam ne bi ñuy jur doom lañ faatu Mhm, bari na.
bàyyi fi doom yi ñoom dee. am na ñoo xam dañoo yóbbaale doom yi ñaata da ngay dégg tey ñu ne la euh, tey maternité li ciy dee ci jigéen kenn xamul nu mu toll. lu ko waral am doom.
Mhm, léegi nag nga judd sa yaay nekk ci coono yooyu damay faral di wax xale yi may jàngal.
mhm, peut-être ñu ngi may déglu.
mhm.
Euh, balaa ngeen di xam seeni yaay Mhm, da ngeen di dem maternité ngeen taxaw salle d'accouchement ngeen di déglu mhm, loolu dafa waroon de.
mhm. lu fa waroon.
waaw lu waroon la léeg-léeg nga bàyyi li ngay liggéey Mhm.
nga dem salle d'accouchement taxaw di déglu taxaw ci bunt bi nga dégg jigéen ñi ni ñuy salleeroo ci biir kon boo ñëwaatee ci kër gi sa yaay lu mu la wax di nga ko def di nga di nga ko teg di nga ko teg place am.
waaw di nga ko teg place mais xoole ki nga xam ne moroomam mooy yaayam sa yaay mooy sa morom bari na ci xale yi.
est-ce que du genn wàll yëpp sax am na ñoo xam ne seen copines yi lañ gën a respecté ak seen yaay Mhm, mhm.
seen yaay du wax du wax di wax.
lu fuñ ko teg l'islam nag du loolu l'islam sa yaay buy wax da ngay wàcc ci suuf sa baay buy wax da ngay rot amoo droit taxaw tey sa ñaari mbagg di pant di ngand ngandalu xoola ñun tey dund bi ñu tubaab yi li ñuy dund tubaab da ngay nekk mag ñu jël la yóbbu la maison de retraite waaw.
dénkaane la foofu Mhm, barki démb sama benn xarit bu nekk France mhm,
damay wax ak moom téléphone mhm, mu ne ma tey dama gis ci Paris lu ma yéem Mhm.
benn jigéen bu màgget Mhm.
yor ay bagage Mhm.
bagage yi daanu ci tali bi ñëpp di ko romb mu ne ma ñëw for ko di ko ko yëkkatil mu defa ne dama koy sàcc mhm.
ma jàppale ko ko ba biir këram mu ne ndaw si ne ma toogal toog di jooy ne ma sama jëkkër bàyyi na ma samay doom bàyyi na ma man damay xaru mu naan xale bu góor bi foo dëkk ñëwal tëjal sa appartement boobu ñëwal sama kër ma man maa lay yor waaw.
di yuuxu ci kaw xale bu góor bi kooku ne ko non man dama yor sama faar mu ne ko déedéet bàyyi loolu quitté ko ñëwal musuma gis ku mel ne yow ci àdduna bi ma dundee bu léegi xoolal rek da ko dimbali ci ay bagage am dem fa fekk fa dara nee na doomam yi dem nañ jëkkëram dem na sàcc na alalam dem moom dong moo nekk ci këram ñun nag bu ñu bëggee def ñooñu ay royukaay Mhm. fa ñu mujj la ñu mujj rek.
fa ñooñu mujj la ñuy mujj jërëjëf ñun dañoo am royukaay am modèle yàlla defar ko ba mu baax yónni ko ci ñun wàcce ko ci ñun ne ku bëgg a baax waajaa ngi nii wa in tutiiuhu tahtadu baat bi sax la indi su ngeen ko toppee jub lu kon lu fi des xool gis nga julit yi toppandoo gi ñu nekkee ak làmbatu gi dañ ko war a baax parce que am nañu ay orientation yàlla nee na Muhammad suñ ko toppee dañuy jub képp ku ñu roy dañuy dëng ku dul Muhammad moom dong lañu yàlla wax ne wa ma ataakumur rasul faxuzuhu fa xuzu wa ma nahaakum anhu fantahu lu mu leen indil jël leen lu mu leen tere bàyyi leen kon modèle baa ngoog kooku moo indi way jur doom nu muy dundee ak ñaari way juram alquran leeral ñu ne sa ndey ak sa baay wàccel say mbagg bal sax nag leen di ñaanal l'islam dafa ne kuy ña ku dul ñaanal sa ndey ak sa baay sa wërsëg doo ci gaaw a jot yonent yàlla Moussa dafa musa laaj yàlla ne ko man ndax yàlla damay dugg aljanna yàlla ne ko waaw waaw da ngay dugg aljanna kay mu ne yàlla kan lay àndal bil aljanna yàlla mu ne ko Moussa da ngaa bëgg a xam koy àndal mu ne waaw yàlla mu ne ko taxawal ci digg mbedd mi ku la njëkk a romb kooku la Moussa taxaw benn xale bu góor romb ko mi ngi wekkoo mbuus yor fettam mu topp ci ginnaaw xale bi kon xam na ne kii la ba xale bi egg ci benn kër daal di wekki mbuus yi di wekki ci garab ak fett gi dugg ci benn néeg lal bas génne fa basang lal ko dugg ci biir yëkkati fa benn màggat bu jigéen ñëw teg ko ci basang bi wéer ko ci garab gi tekki mbuus mi ndeke yàpp la muy dagg di jox ndaw si ndaw si lekk ba suur mu jox ko ndox delloo ko lemaat basang bi dellu daal di jël fett yi wékki ci mbaggam génn romb Moussa taxaw Moussa ne ko taxawal mu taxaw Moussa ne ko ndaw si lu ngeen bokk mu ne ko sama yaay la mu ne ko loo ko doon jox mu ne saa yu ma xëyee suba damay dem rëbb jàpp ay njombar rey lakk ba mu ñor indil ko lekk mu lekk ba suur ma may ko ndox ma delluwaat ci àll bi loolu mooy sama liggéey mu ne ko boo jox boo ko joxee mu lekk mu naan ba pare lu mu lay ñaanal mu ne day yëkkati yàllaay loxoom ne allahumma ij'al ibni haza maa musa ibnu imrana fil janna allahu akbar musa musa daal ne ko abshir fa ana musa fa anta rafiqi fil janna allahu akbar bégal yow xale bi man maay musa yow yaay sama àndandoo biir aljanna kooku fu mu amee loolu ci ñaanu ndeyam alquran ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nañu aljanna tahta aqdamil ummahat aljanna sooy wuñ de déedéet amul benn distance du ay kilomètre aljanna sax mu ngi ci suufu tànku yaay mais balaa nga koy mën a dund nga dund programme bi la yàlla jox yow doom ji ci jigéen nga bàyyi ñetteel boobu nga ñëw ci uxt en tant que sœur jigéen gis nga Moussa keroog bañ ko sànnee ci biir géej gi kan la yàlla wax na ko topp sëram sëram imran bañ koy mu- ah, mariama bañ koy wax càmmiñam lañ koy waxee yaa uxta haarun kon moom sëru haarun la soo laarum gis nga sër daf lay féete fu la sa yaay di féete jabar doom ah di la encadré waaye nag lépp fan lay mën a nekkee diine suñ dundul diine ji kenn ci ñoom doo mën a am programme boo xam ne moom ngay mën a remplir te ñaata sœur nga gis yu seen diggante ak seen frère yàqu ñaata sœur nga gis yoo xam ne daanaka seen càmmiñ yi feguñu leen sax ci wee au contraire parce que lu tax xëy na am naa diplôme bu ma amul egg naa fu mu amul fu mu eggul dem naa fu mu demul xam naa lu mu xamul ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen lu waral loolu mooy ñàkk dund programme bi nga xam ne moom la yàlla indi lenn saa yi sa soxna day nekk sa rakk bu jigéen dootul nekk sa jabar waaw rakk bu jigéen lay nekk da ngay am programme euh, dafa am benn waay bu ndeysaan yaayam feebaroon séeram yëpp daw mu dem kër yaayam jëli yaay ji indi ko ci jabaram ne jabaram ah kii de sama yaay la moo ma jur ñi mu juróon nag daw nañ ko man nag yow laa am yow nag nga seen ndax mën nga ma cee dimbali mu ne ko bu soobee yàlla ne ko ay doomam waroon toppatoowee man dinaa ko toppatoo noonu mooy sang meer bi moo koy fomp solal ko ay yére jox ko mu ndékki baleel ko néegam ba mu set lalalaat ko tegal ko ànd curaay teg ko dugal ko ci mbaaj mi bàyyi ko mu nelaw ba meer bi génn àdduna gis nga ndaw soosu munoon naa wax ne man jabar laa waaw mais dafa fonk jëkkëram moo tax tey mu taxaw ko ngir jëkkër ji nekk càmmiñam moom mu nekk rakkam bu jigéen mu wuutu ay rakkam yu jigéen fañ ko waroon wuutu ci yaayam gis nga bi meer bi dee xam nga lu xew xale jigéen yooyu dañuy ñëw ne dañuy dëj ku nekk dem indi sa cinquante mille ñoo dañuy cotiser jënd nag pour dëj waa ji ne kenn du ko dëjee sama kër ndax sama yaay gisuloon kenn te xam nga Sénégal du fi garaaw mooy bu nit nekkee ci dëgg waaw moom la nit ñi di ŋàbb waaw waaw ñi nekk ci caaxaan waaw kenn du leen wax dara ñoom la ñuy yëkkati
fi mu nekk nii ñooñu lu ñu leen waroon wax
Mhm.
yedd leen wax leen dëgg mais non non kii dafa bon naan kenn du fi dëj ku dee dañu lay dëjal pititita nunu gis nga Sénégal li koy yàq mooy dañ fi dul wax dëgg dëgg moo réer li waa ji naan dëgg bu réeree ci penc ñu koy wër suba ba ngoon ñu toog koo gis ay maga fa juum loolu moo am suñu réew mii foog ñu delluwaat nag parce que diine lan yor te diine ji dañ ko war a dund bu ginnaaw oxt day nekk xariba jege ñaale góor kan moo ko gën a jege soxnaam jigéen moo gën a jege góor ci lépp xam nga bu ñu nee jege ñaale moom jegeñ ku la jege ña kooku lu ko neex mu def ko ci yow waaw
moo xam sa lépp moo xam sa biir xam sa lépp moo tax jigéen mooy cummukaayu góor waraa kullu azim da ngay dégg ñu ne la imraa waraa kullu azim nag imraa ponkal moo gis muy daagu di dem jigéen moo nekk ci ginnaaw moo nekk ci cummikaayam xoolal loolu keroog sulhu xud kii sulhu xudaybiya yonent bi saa salaam bi mu génne sahaaba yi ne leen dañuy dugg màkk ñu ñëw ba ci àll bi gars yi oo yéeféer yi wër leen ne leen du ngeen dugg keroog yonent bi mer sahaaba yi ne ko yow yaa ñu waxoon dañuy dugg ndax yaa ko wax ci alquran la tadxulanna al masjidil haram mais yàlla ne danañ dugg mais waxu leen bis bi waxu leen weer yi waxu leen fan bi dana di ngeen dugg rek Waaw.
ñu xëy dem sahaaba yi mer yonent bi ne xanaa du man la yàlla yónni keroog gaa yëpp mer yonent bi mer ne ñii danañ alku dugg biir néegam soxnaam Umu Salama ne ko lan la mu nettali ko mbir mi ah ñun yàlla moo nu waxoon dinañ dugg ñëw nañ ba fii ñii bañ ñii maa ngi leen di wax ñu lànk xam nga lu mu ko wax soxna si da ko ne gis nga ñii yow rek lañ bëgg yow rek lañ gëm yow defal li nga war a def rek demal nga sangu nga watu nga solu boo génnee danañ la topp yonent bi dafa dem sangu solu watu génn génn wàll gi ci mbooloom yëpp ku ko séen rek ba xoo dangaa def rek tànk sa ndox départ sangu solu watu ba mbooloom yëpp daj am genn wàll gu watuwut yonent bi saa salaam daan ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi watuwut ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi wàññi mu ne yal na yàlla yërëm ñi watu gaa yi ne ak ñi wàññi mu ne ñi watu ak ñi wàññi ku régler problème bi ummu salama gis nga diine ji muy lislaam jigéen def ci def ay histoire yoo xam ne góor sax defu ko ci danaa la jox misaal ki njëkk a gëm diine ji lan la jigéen
ki ci njëkk a dee lan la jigéen jigéen ki njëkk a gëm xadija la balaa ñuy wax ay Babacar ak ñoom Ali ak nangam nangam xadija la ba pare yow pare ndax yéen di bu mu jógee xaaru xiraa daw rek xadija la kiñ ci njëkk a rey suma yàlla moo ci njëkk a tuur deretam jigéen la jigéen
kon tey bu ñu nee lislaam dafay xeex jigéen lislaam daa tardel jigéen ne ne ñoom ñooy di wax ñoo tardé moo tardé kay wallahi ñoom ñoo tardé bu ñu yaakaaree ne sol ay jiin di dangal peinture seen yaram yi ah jël ay cheveux indien sëf ci seen bopp yi yor ay saaku 3 tonnes moom mooy avancé loo jigéen day nax seen bopp danañ dang dangi ba seen yaram yi tas góor yi tas leen ba pare ñu ñëw dee dem safara
xëy ñu bàyyi seen yoon waaw il faut loolu mu leer jullit bu jigéen dafa am mission bu mag da ngay jàng ci l'histoire jigéen ñi liñ def xoolal Aïcha xoolal Khadija yonent bi saa salaam mus mus ko woon fàtte da doon wax kii mooy jigéen ju mën góor bi ma ñëpp ne du dëgg moo ne dëgg la bi ma ñëpp xañee moo ma jox te moom dong la ma yàlla waa wërsëgal doom yi ma am ak moom
yàlla fay na ko moo tax Khadija génn àdduna yoon di mun ko fàtte daf ko daan wax da ko daan wax Khadija Khadija Khadija Khadija xam nga rek jigéen ak moroomam benn saa yi sax Aïcha ne ko waaye yow kooku dee na nag dimbali nu mu ne ko déedéet yenn saa yi ñu may ko dara mu ne loolu ñu ko may Bilaal mu ne ah mu ne jëlal jox diw ndax xaritu Khadija la woon xoola nga am jabar mu dee munoo ko fàtte ah am na lu mu def ak jabar nga am jabar mu dee ñu ne la diw dee na nga ne alhamdulilahi rabbil alamin yàlla na yàlla lu sol xam nga yàlla loolu na yàlla lu sol am nay paa yoo xam ne tey seen bu leneen seen jabar dee na dañu alhamdulilahi rabbil alamin waaw ndax coono bi ñu leen teg waaw xam nga ne loolu te te waxuma benn paa ay tey ci Sénégal am na paa yoo xam ne bu seen jabar dee dañ naan alhamdulilah léeg-léeg sax ñu jooy jooy lu ni waaye waaw dañuy sant yàlla bu ñu mënoon zibi la jaar ci mbedd yi di daw danañ ko def xam nga loolu musiba weesuwul loolu musiba weesu na.
nga yor soxna ci biir kër ah boo wàccee liggéey sax doo ñemee dem sa kër da ngay jaari grand place ba télé grand place ñëpp dem nga ñëw toog ci salle bi doo ñemee dugg sa biir néeg seetaan télé émission bu dem nga ut beneen scène daanaka lal bi 30 minutes nga fay def ne vaat bu rek léegi nodd nañ salaatu nga jóg ndax xam nga li lay xaar kooku kooku bu jigéen ju mel noonu yoroo programme diine jigéen jigéen ñi bu ñu yoroon programme mu diine l'islam kon jàmm rek mooy am ndax ñoom ñooy nisful mujtama jigéen su baaxee société day baax jigéen su bonee société day bon beneen bi mooy mbokk yi jigéen mooy yarkat bu mag bi al murabbiya jigéen mooy yarkat jigéen mooy yarkat moo tax yàlla jox ko na nàmpal góor moo tax mu amee ween léegi nag nga xool foofu benn benn misaal borom bi tabaraka taala dafa waxoon ci quran wal walidaatu yurdi'na awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa ñu toogoon fi ay jamono ñu ne nompal day day rey jigéen day ñicc deret bi day daaneel ween yi day day day nga gis jigéen ñi bàyyi ji daan nampal dem ut biberon ut meew meew meew di nampal meew moom fu mu jógee kenn xamul meew lu mu doon sax.
ci nag nag yi la ñuy rat woyal ko ba mu woy def ko meew ku nàmpal soowum nag
moo tax bo- problème yu bari kay.
waaw xamaguñu sax li tax mu bari waaw ndax jëf yi nag la ñuy def kon.
moo tax réunion boo dem nga gis gars yi ngand au lieu ñu jaay xel ngand ngandalu waaw waaw parce que nag soowum nag la ñuy nàmp Allahu akbar.
bu ñuy wax fu ñu dem rek doole xam nga doo nag moom doole la am doole lay jaay waaw moom lay imposé sax.
moom lay imposé.
moom la dëgg la.
ça le problème waaw waaw ñoom doole la ñuy jaay ngan na ngandalu.
gis nga agression Mhm.
amul woon mais ba ñu commencé nàmpal nit ñi soow yi nag Mhm.
nga gis nit gàddu jaas jaar ci mbedd yi di dóor bu nit ñi bëcc waaw du- du- dara ci lay.
koo gis léegi lu muy def génn ay wen sol bëdi waaw ngandum tubéy ngan di dal Antoine, génn hein?
dënn naan nii entraîné ba ceeb.
waaw di jaay doole parce que lu tax soowum nag waaw.
soowum nit nit bu ko nampé yëfu nit lay def mais soowum mala boo ko rampé yëfu mala ngay def ma jox la benn misaal tubéy yi léegi fan la ko xale yu góor yi takk waaw daanaka mu ngi koy kéemaan na fii kay.
tubéy lu mu doon jëriñ sutura sutura.
sutura waaw nga nëbb ko ci kaw takk ceinture Mhm.
léegi tubéy bu demee ba nga wàcce ba ci pooj yi waaw kéemaan na.
léeg-léeg ñu ne la ah waaw waaw waaw waaw waaw ah.
mais dama laa laaj rek tubéy lu mu doon jëriñ li wax dëgg la. waaw Ana xel yi, ana xel.
waaw waaw xel newul tuuti foofu léegi.
léegi nag bu jigéen ñi demee bay toppandoo xale yu góor yi ci loolu Mhm.
nga xam ne sax du ki koy def du jiital dung lay def ah yére lan moo taxoon yàlla wàcc ko ci alxuraan bi yàlla naan libaas maa ko wàcc lu mu wax li yuriyakum sawaatikum ngir mu nëbbal leen seeni awra léegi yow est ce que yére yi ñu ngi nëbb awra yi Déedéet, déedéet.
boo jaaree nii léegi Waaw.
baal ba émission bi jaa nga taxaw fi Mhm.
léegi gis léegi ay ween nga ay xale jigéen romb la seen ween yi ci biti Loolu dëgg.
pooj yi ci biti waaw seru liñ jiital ci biti tout amatul lu nëbb xale yu góor yi bàyyi.
xale yi góor romb la seen liñ seen seen tuba yi.
kenn du wax seen njiital waaye seen Waaw.
lañ jiital nekk ci biti tubéy bi lu mu doon jëriñ ah kooku kay nag la daanaka.
léegi nag ana xel mi ah ana xel moo tax borom bi tabaraka taala ne wa laqad zara'na li jahannama Ah.
kasiran min al insi wal jin Ah.
lu tax Ah.
mu ne lahum qulubun laa yu xawoon na biha la yafquna biha wa lahum a'yunun laa yu siroon na biha wa lahum azanun laa yu simoon na biha.
waa safara bi ñu duggee safara ci suratul mulk ñu leen di laaj yéen waa safara lu tax ngeen dugg safara maa salakakum fi saqar Ah.
xam nga lu ñu wax ah
bi leen gaa yi laajee ah ñuy réccu dañ ne law kunna nasma aw naqil waaw ma kunna fi ashaabi sair waaw.
ay waay ñun buñ doon dégg di xalaat ah kon tey dund gu safara waaw waaw bu jamono ne amuñu woon.
law kunna nasma cey ñun buñ doon dégg ci àdduna aw naqil wala ñuy xalaat ci suñu xel yi yàlla may nu ma kunna fi ashaabi sair kon ñun dund gu safara ndeke yàlla may la nopp doo ci déglu yàlla may la xel doo ci xalaat safara nga jëm xel lu muy jëriñ mbokk xalaat.
xalaat mais tey bu ñu xoolee société bi ni muy dundee nii ñi ñu ñi ñu tëralal nii nañ ko dundee xalaatuñu programme bi ñu indil ñun pour ñu war ko dund ñun ñii xalaatuñu xalaatuñu
xalaatuñu xalaatuñu.
dañuy tëb di di la di la bax la bax rek di dem waaw.
mel na rek ku nekk ci ndox di waaj a lab ah xam nga kooku xalaatutul mun feeñ Waaw.
day paccax paccax yi di tëb lu nekk mu def ko noonu la ñuy dundee nii tey sax pàcc pàcc ba dafay gën a lor sax.
très bien léegi nag ñun ci loolu la nekk te diine ji diine ji amul làmbatu déedéet.
islam amul looy làmbatu lu nekk dafa war a leer li yuxlika man xalaka an bayina wa yaxya man xayya an bayina ku nekk mbir mi dafa war a leer islam amul làmbatu naa naa def ni ay calcul lii lii la lii non dañ la ne da nga war a takk soxna ñu ne la tànnal kan lay tànn ñu ne ku mel nii da nga war a tabax kër aljaar qabla daar utal ay dëkkandoo boo amoon jabari malaayika nga indi ko dëkkal ko ci ay bandi ay solaar doom yi bu ñu juddoo nekk ci solaar aljaar qabla daar balaa ngay tabax kër gi ñu ne la utal dëkkandoo gis nga ibrahim jàngale na ko dafa dawale ay doomam palestine ñëw ba ci màkka mu ne rabbi inni askantu zurriyati bi waadin gayra zi zarin inda baytikal muharram yàlla dawale naa sama njaboot indi na ba ci xur moo xam ne kenn du fi bay amul ndox amul lekk amul naan montagne kese la nit ñi ne ko ibrahima lu waral li mu ne rabbana li yuqimu salaa pour ñu mën a jaamu yàlla rabbana li yuqimu salaa pour ñu mën laa jaamu rek moo tax ma dawale leen ba fii pour ñu war laa jaamu kese moom mais loolu la mais ñun lan la ñuy def da ngay dem indi télé teg indi DVD dem jënd kasetu Rambo ah ñëw ci simbkat yi ci mbedd yi nga jënd ci kaset yi ñëw ci mbëri jënd kaset yi lu nekk lu bon lu ne nga indi léegi nag xale yi di seetaan lool bëgg a màgg ci loolu nu ñuy def waaw loolu loolu la ñuy xam léegi.
ah mais mais vraiment faqidu shay laa yuti mais vraiment vraiment nit ku nekk daal man aasa man saaba ala sëy saaba alayhi ku nekk ndaw ci dara màgget ci nekk ci loolu ci loolu ci loolu rek nga nekk ci loolu rek ci musique ci fecc soirée stade dancing cosaan géej ba nekk mag boo duggee ci yàq boo nee jàngee faatee wala nga ni iyyaka na'budu da nga naan yàq na'budu yàq nasta'in ku yàq na abud yàq na sëñ nag doo am dara ci doo am dara ci yàlla ci àll loolu mooy sunu wax. kon mbir mi aw dundin la. jigéen mooy yarkat. tey boo xoolee xoolee imam Malik. da ngay dégg mu ne la dafa bëggoon nekk waykat. te yaa ne ko sama doom kaay moox la yow amoo taar amoo taar te waykat dafa war a taaru. dama nga jàngi. xoolal fu mu mujj tey imaamu Malik. madrasatul hijaz laa yuftaawal maaliku fil madine dañ naan wax laa yuftaawal maaliku fil madine ah mooy madrasatul hijaz ah daan toog ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jàngale waxi yonent bi ah naan kullul kalaami yuxas way rad illa saahibu haza al qabr mu ne maay ilimaanu jàkk yonent bi maay jàngalekatu jàkk ji maay mufti jàkk ji ñett yëpp la boole yaay moo tax kon yaay dafa am solo ci doom yaay moo tax yàlla tabaraka wa taala jox ko doom yaay saa yu yaay pare pour doomam nekk borom xam-xam doom ji day nekk borom xam-xam saa yu yaay pare pour doomam nekk bandi doom ji day nekk bandi ndax doom ku mu gën a xam ci àdduna mooy yaayam te doom benn këyit bu weex la rek bu la yàlla jox doom xamul dara yàlla bi mu la ko indil dara nekk ci lu bon kullu mawlud yuladu alal fitre yàlla da la ko indil mu set wecc amul dara lu mu taq ma dafa ne fa abuwaayi yu xawidaanihi aw yu nasaraanihi aw yu majjisaanihi fa abuwayhi ñaari way juróom yu xawidaanihi ñoo koy juif ñoo koy da yahud wala ñu def ko nasaraan wala ñu def ko majuus mais bi muy ñëw fiktara la indi set wecc dara taq ko xale baa ngi noonu kon buñ ko jëlee war ko teg ci raay bi yonent bi saa salaam mu ne raafiq tiflaka sabaan walaayihu sabaan wa allimhu sabaan sept fois trois vingt et un ans jàngalal xale bi bu mu amee juróom-ñaari at yar ko bu mu amee juróom-ñaari at tàggat ko bu mu amee juróom-ñaari at ñetti juróom-ñaar ñaata la ñaar fukki at ak benn xale bi mën lépp bu ilimaan tardé mu jiite remplacé ko bu ñuy sang néew mu mën ko yonent bi saa salaam jël na xale bu am ñaataat jiital ko guerre Zeyd bu ko yonent bi di jiital ñaataat la am ah Zeyd bu ko yonent bi di jiital guerre ñaata at la am xale bu tuuti la est-ce que amul amul amul 16 ans wala 17 ans xale bu ndaw yonent bi jiital ko ñëpp nekk ci ginnaaw xale bi nekk ci kanam jiite guerre parce que lu tax kooku dañ ko préparé kon yaay moo nekk yarkat waaye wa muallima yaay moo nekk jàngalekat jigéen moo nekk jàngalekat gis nga yii yëpp jigéen moo koy def ci société jigéen mooy yaay jigéen mooy jabar jigéen mooy doom jigéen mooy sœur jigéen mooy jegeñaale jigéen mooy yarkat te jigéen mooy jàngalekat jàngalekat
gis nga même démb da nga daan gis xale yi jigéen yi dañ leen di jàngal sax nu ñuy nu ñuy tontoo nu ñuy waxee nu ñuy toggee nu ñuy defee lépp am na yoo xam dañ koy wax ci sunu aada même bu li dëgg it même bu dul dëgg waaye xel xel xaw na koo nangu ñu ne la boo demee ci kër di labat dañ naan xale bu jigéen bi demal nga may waaji ndox boo ñëwee ne nii teg sa loxo sa mbagg sa ndiir sa ndigg ne nii ñaari loxo yi waa ji ñi bi ñu ne ko waayu kele doon may ndox mu ne ah nii la ñu ne ko xeexkat la gis nga parce que loolu xeexkat moo koy def waaw waaw image xeexkat la waaw
bu wokkee bopp bi ñu ne dalay tënj bu wokkee tànk yi may leen ndox ba pare sa giri wokk tànk yi ñu ne ab doxkat la bu la mayee ndox sukk toog ni nii nag ñu ne soxna sàngoog
yow ay mandarga ay mandarga sax la mag ñi daan joxe démb ci sax yi même sunu yar yooyu sax dañ koo sànni ca xaj amatul benn yaay buy toog këram naan doomam nangam ak nangam ñoom ñëpp ñu ngi ci avion yeeg ñu ngi ci saag yi ngandeeg ñu ngi ci xew yi ubbil nañ leen ay kii yu tontine xaalis yooyu foo tourné léegi ci biir Dakar gis nga fa benn magasin buy lebale xaalis ñu def fa leket dugal ci xaalis jigéen ñaa ngi ci uti projet ku nekk ñu ne la soo indee projet ñu financé la te moom programme mooy toogoon ci kër ga defar waqar na fi bu yëtu fii kuwaytikun na loolu mooy mission bi mooy yow yàlla daf ko jox mission pour mu toog defar yar jàngale jàngale mais imaginel nga am nga nekk gë- góor nga génn sa jabar génn kuy dat ku yar xale yi ah doy doy waar doy waar de mais kër gi am il faut am ku fi nekk waaw kër gi il faut am boo sonné buntu bi am ku am ku ubbi bi ma sonné léegi dafa am ku fi ñëw ubbi su ma sonnoon taxaw fi fekkee nekk fi lu fi am waaw da nga dëpp lépp
kon yàlla tabaaraka wa taala programme bi rëy bi gën a rëy bi mu jox jigéen mooy mu defar mooy mu yar mooy mu jàngale mu jàngal ay doomam jàngal leen teg gi nu lekk jàngal leen teg gi nu solu jàngal leen teg gi li wax jàngal leen teg gi nu dox lu nekk dañ koy jàng mais tey jii ci suñu société lan la ñu jàng da nga daan dee ñu ne nag ndig li nga wax kenn du ko waxee waaw
même sax boo sa morom papa boo jaaroon ci tur bi daan i i, déet ngeen du ko papa kii sa morom papa la bu koy nuyu da ngay nuyu papa ñaari loxo ngay nuyu ñaar loxo ah lekk am naa sama rakk boo xam ne ne man la toll suñu papa génn na àdduna mais bi muy dund ñëpp góor gi génn na àdduna lekkatul ak ñun waaw
benn bis dañ doon lekk góor gi dóor ko benn kurus ci bopp bi keroog la araamal lekk ak moom ma ni góor gi génne àdduna te ponkale ne man la toll ma nga Espagne instant bi mu ngi Italie imagine loolu parce que dañ la daan wàññi ne la nii ngay defee mais tey da nga dugg ci kër gis xale boo xam ne bu ñu ko joxee kaas ataaya bare mu naan ko ci karo yi la naan ko rajax ñi ne "Ah, toj na kaas ba toj kaas mënu fee am kaas mënu fee am waaw kontaan si xam nga xam nga am na yoo xam ne dañ koy wax ci réew mi mais dañuy sonal suñu bopp waaw wala nga jox ko muy rek jël càmmoñam di ko càmmoñ lekkee.
yooyu yëpp gis nga yonent bi saa sallam lu mu wax ci loolu laa taakulu bi simaal wala tashrabu bi simaal fa inna cheytaan yaakulu wa tashrab min asimaal même démb jigéen boo ñëw fekk muy wañ a càmmoñ da ngay dindi lekkeel bi rek ne ko demul sa yaay su ñëwee ñu ne ko deet kenn wow la sa càmmoñ bi moo la dindi am na mag ñoo xam ne tey boo doon ataaya nga suukare ko càmmoñ duñ ko naan yar la woon yar la woon mais tey da ngay dégg tubaab bi mu ne la boo amee xale di ko jàngal muy binde gauche bàyyi ko intelligence am ci gauche bi la nekk est-ce que xam nga loolu kenn du ci dóor xale léegi gis nga waaw waaw loolu dëgg waaw Est-ce que xam nga loolu?
kenn du dóor xale rek loolu dëgg la ah sëñ yaa ngi may dégg dañ laan la intelligence am ci gauche bi la nekk te ñun ñëpp xam nañ ne nit ki buñ ko wàññee teel ci xale muy lekke gauche wala muy suñ ko wàññee mu dem waaw
ay nit a ngi fi tey yoo xam ne gauche yu garaaw lañu woon mais dañ leen a wàññi waaw ñu génn ci waaw bu set bi ndax lépp jubbanti rek lépp jubanti la mais da ngay dégg ñu ne la non bàyyi ko intelligence am ci gauche bi la nekk ñu bàyyi waa ji mu muy binde gauche lépp gauche la koy defee buy rendi xar sax bu ko rendee gauche gauche am ren defu gauche waaw am day dem ba ndijoor bi du ci mën a si dootul mën dara di joor bi dara dootu ko jëriñ lépp gauche tam sax muy lekk jël kuddu di lekke gauche bu waxee mu ne la non sama gauche bi day moom ba pare di ko ree ko affecté xamul ne ci musiba la nekk parce que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne yëfu gauche yëfu seytaane la kon mbokk yi su ko defee war nañu bàyyi xel bu baax ne l'islam boobu ñuy wax dundin la dundin du lu ñuy indi nii rek pour julli tey boo nee l'islam ak jigéen wala l'islam ak nangam wala l'islam ak nangam am na ñoo xam dañuy jàpp loolu loolu l'islam da ciy wax loolu moom lu ci yoonu l'islam fekk xamuñu ne l'islam aw dundin la gis nga fii nga toog ni munoo maa poser question ci dara lan la ci l'islam wax lu dul dinaa la ko tontu l'islam dafa topp nit buy sol daal booy njëkk a sol sax ban ngay njëkk a simmi wax na la ko sooy sol yére ban loxo mooy njëkk a dugg tubéy bi ban tànk mooy njëkk a dugg boo koy simmi booy tëdd nooy tëddee booy yeewu ci lal bi soo dugg ci toilette bi ban tànk mooy njëkk a dugg sooy génn soo nekkee l'islam bàyyiwul dara maa farat naa fil kitaabi min shay aw dundin la wu nit war a dund même booy yéeg ci oto mu ne am nga looy wax même yaag sa soxna ci kaw lal bi mu ne am nga looy wax amul lu nu di def ci diine ji lu dul am na lu muy wax léegi nag ñun ñu bëgg a ñëw rek sunu diine yëpp mooy julli koo ne rek mu ne ah man de maa ngi julli julli naa tisbaar léegi àjjuma laa julli te imaam bi xutba na xutba bu neex loolu rek lañ koy foofu rek lañ koy kal pare nañ ci ba nga jógee jàkka ja sa kër nag léegi nu la neex nga def booba taksaan yaa yaa moom sa bopp lu la neex nga def ba julli gi jot nga jóg jàpp julli sa ñeent raaka toogati nekk ci lu la neex ba timis jot timis jot na nga jóg julli timis bi passé nga nekkati ci lu la neex ba gee jot boo xasee julli gee ci lu la neex ngay nekk ba fajar jot ñooñu sax ñooñu ñu baax ñi nag
waaw ñooñu ñooñu ñu baax ñi ñoom sax ñu koy def waaw ñooñu ñu koy def ñooñu ñooñu ñu baax ñi am na ñoo xam ne moom ñooñu moom kenn mënta fexe ba l'islam ñu defal la ci lu toll ne tarfataayin pour ñoom l'islam ay moyen âge la yooyu kenn waratu ko wax ci dëkk bi loolu nit ñi passé nañ foofu paa yi rek ñoo war a julli waaw booy wax tey jigéen dafa war a dafa war a muuru jigéen warul jox góor loxo jigéen dafa war a toog ci biir ñu ne la non c'est que xam nga jamono yooyu nag ah léegi nii dafa tàng ma nga xam ne mani yooyu xam nga ay wax la rek tàngaayu tey bi ak tàngaayu démb bu gënoon tàng tey xoola moyens yi ñu am pour pour pour wàññi chaleur tàngaay bi démb sunu mag ñi lan lañ doon serale seen tàngaay ak ñun moyens yi ñu am tey amuñu ko woon ah amuñu ko woon kon diine kenn du ko tënk ci xel déedéet
jigéen a nga noonu nekk jàngalekat nekk nampalkat di jël doomam di ko teg ci ay weenam di xool doom ji doom ji xool koy bët mu xool ko seen ñaari bët ne rëcc xool yi daal di tafu ah yaramu ñaari tàngaay yi daal di duggante xoolal fan yi génne nañ benn benn système boo xam ne kangourou tubaab yee ko génne nee nañ boo amee doom ju matul au lieu ñu koy yóbbu crèche yaa ji da koy jël rek fii la koy dugal ci diggante ñaari ween yi ba tàngaayu yaramu yaay ji bu mu sol yére da koy da koy da koy ci dugal ni war ba takk ko doog a sol yére léegi doom ji di respirer tàngaayu yaay ji ñoom ñaar se ñeneen loolu sa ay saye jeex na yàlla moo wax dëgg wallaay dañuy wiiri wiiri rek waaw waaye dañuy ñëw mais yàlla li mu wax rek mooy dëgg waaw wiiri wiiri nag jaari ndaari rek tey gis nga banque yi yëpp a daanu dëkk yi yëpp am problème riba bi léegi ñu ngi dawaat di dellu ci banque islamique Amérique da ngay dégg ñu ne léegi interdit nañ góor ak jigéen bokk incensaires yi jigéen ñooy jigéen ñooy bokk loolu l'islam moo ko waxoon waaw yàggul l'islam ku ko weddi rek mi ngi lay xaar yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg di nga gis fi mu lay xaar ne li mu wax mooy dëgg parce que l'islam ñëwul di xeex nit déedéet non dafa ñëw walakum fil walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab laalakum l'islam dafa ñëw pour nit mën a dund jàmm ci kaw suuf yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra l'islam dafa ñëw yomb yàlla bëgg nit ñu dund dund bu neex ci kaw suuf dund aljanna balaa ñuy dem alaxira di dugg aljanna bu mag bi lépp luy lor nit yàlla tere sàngara kan lay lor xoolal rek li muy def nit xel sax nanguwul ne luy def nii nit di mujj ak moom fii waru nit di ko def waaw ci yoon en tant que nit rek en tant que nit waxuma sax diine xoolal tey nga fekk benn kilifa boo xam ne dafa naan ba maan di def de- dem dem dem àll ba ci ay yére waaw ci yoon wala nekk rek ci koñ bi eh, xale yi topp ko da ngay rus sax te ñu ne la i nga ni kii diw la ñu ni diw
da ngay rus semaine bale passé dama gis benn waaye bu ma dëkkal boo xam ne du siggi xool nit mu màndi bëccëg keroog li jógee ci man waaw ba léegi nii man ak moom mënutuñu bokk mbedd xool xoolal loolu ni mu grave yàlla ne loolu bu kenn def xoolal njaaloo ni mu bone am doom joo xam ne bi nga ne bi ñu la ne kuy baayam nga ni gaa yi gaa yi ñooy baayam ban gaa yi non man wax dëgg yàlla gaa yi la xale boobu war a juddu ëllëg ñu ne ko yow kuy sa papa am problème
nga defa ne yow li nga def nii dara duñ ne te gis nga loolu ñu koy def ñëpp xam nga kañ la ñuy am problème bu ñu demee ba nekk ay kilifa waaw
bu dee ku jigéen ki la bu demee ba nekk ci biir këram am ay doom mu war a wax doom yi toog leen wala hee am na ci benn gu benn benn paa bi mu ne doom ji hee paa bi ne ko ne paa bi nga ci tollee da nga koo defar waaw waaw waaw mu yegg suuf di xam-xam lu di xëmal waaw.
dara boo xëmee tam da ngay dee rek waaye yaa ko def yaa ko def parce que doom jooju noonu la ko amee woon waaw na am na position yoo xam ne boo ci tolloo woon pour pour nga yar dina jafe non day jafe loolu moo tax lislaam lu mu tere rek bàyyi lu mu tere rek wallahi sa njëriñ moo ci nekk soo ko bàyyee li mu la wax defal sa njëriñ moo ci nekk tënkal yi lislaam wax bu ko nit def yépp nga xool ban moo ci am intérêt ëllëg lekk riba naan sàngara njaaloo sàcc fen sol col gu bon gii ah amul dara lu ci lu ci lu ci baax lépp fu muy mujj baaxul léegi moo tax lislaam nekk dundin woo xam ne imaginel tey dëkk yi nga xam ne ñoo tane waxuma sax dañuy dund lislaam 100 pour cent mais lu bon bon bon bon bon am na sama benn xarit xëy na mu ngi may déglu ci jumaam laa jullee léegi dañu ànd aji ma njëkk ko ñëw bi mu demee portable am réer foofu ca ca àjj caaj ga mu àbb beneen portable woote ci jot portable numéro bi am ku jël ne ko sa port sama portable mu ne ko waaw mu ngi fii boo ñëwee ci cadre bi kaaba gi am na benn brigade nangam ak nangam nangam boo ñëwee ñu jox la ko bi mu ñëwee li ko njëkk a yëm mooy foofu yëpp portable yi dañ leen chargé ndax ku woote rek sa portable réer ku woote rek ñu jox la ndax balaa batterie bi bi saag yeeg lépp lu réer rek ñu ngi mu teg ku woote rek ñu jox la sama mu ñibbisi wàcc ci aéroport Dakar Yoff jël taxi nekk ci kanam di waxtaan ak borom taxi bi teg portable ci kanam bagage nekk ci ginnaaw mu wàcc génne bagage yi fàtte portable bi dafa dugg ci biir saalam rek xelam dañu portable bi mu war a jot boîte vocale
dina piis ba
ana diine bi xam nga bee dafa réer bii dañ ko sàcc bisik sàcc ana diine bi kon mbiri du benn déedéet gis nga diine bi gars yi ñoo la gën a xam ne diine bi mooy avancé loo nit mais xam nga lu tax ñu bañ nit ñi dund diine mooy xam nga caar ay bandi lañ dañu bëgg fu ñu tooyale fu ñu féexale seen xol ah xam nga waa ji nga xam ne ko ñëw defar tali bi fii daal di defar ay garab def fi ay baa nangam ak nangam ki fi def baa am na lu mu bëgg ci baa yi
moom léegi la ki fi def baa yi mais am na lu mu fi bëgg waaw wala lan lañ ci bëgg waaw pour ku ci toog def ko ay lampe peinture ba mu rafet ah nii ñooñu def bàyyi am lu ñu bëgg waaye ñu ne noonu nit ñi bu bu ñu tàngee ñëw toog toog fii jàpp ci ki ki loolu la ñu nangam ne ma non gis nga caaxaankat yi dañu bëgg fu ñu féexal seen xol yi moo tax dañ naan xale jigéen yi génne leen seen yaram yi façon mode bu nekk ñu indil leen ko façon tubéy bu nekk façon body bu nekk façon nangam bu nekk télévision bi daanaka boo xoolee télévision Sénégal danga naan Sénégal ñetti ñeenti mooy seen programme fecc woy bëre musique lii rek mooy télé bi lii rek boo xool télé bi amul leneen mas ngaa gis ci télé bi ñuy jàngale jàpp déedéet moom gis nañ mas nga cee gis ñuy jàngale julli même même sax leçon yi ñuy jàng France français ah yi mën nga gis télé ñu koy jàngale déedéet
ah amul lu baax lu ñuy wane télé yi am télé yi fi nekk yëpp nag amul lu baax luñ ci wax xanaa benn titan sax muy RDB xanaa mais mais nit ñi nit ñi il faut ñu defar leen nit ñi il faut ñu defar leen nit ñi bu ñu leen defaree suuf si defaru nit ñi bu ñu leen yàqee suuf si yàqu soo déggee ñu ne dëkk bi dafa yàqu télé bi fii rek la mu sa nekk waaw moom changé la immeuble yi fii rek la mu sa nekk lu fi yàqu kon dëkk bi dafa yàqu kon lu ko yàq waaw ñu zéro bi fii rek la mu sa nekk ah ñu fi nekk ko yàq ko boo nee taxi géejawaay laa jógee ba ma nee taxi bi zéro fii la ma indi waaw léegi mu ne dëkk bi dafa yàqu lu ko yàq ah ñu ko nit ñi nit ñi ñoo yàqu nit ñi waaye nag nu ayibu zamana wal ayibu fiina wa ma fi zamanina ayibun siwaana nu ayibu zamana dañuy ayibal jamono wal ayibu fiina ayib yëpp ci ñun ñi la nekk mu ne wa ma fi zamanina ayibun siwaana sunu jamono ji benn ayib nekk ci kudul ñun
ñu na ñu na
ñun rek ñoo yàq jamono bi ñoo yàq dëkk bi kilifa yi dina kon seen rôle seen warugar dañoo wàcc seen ànd amul tul kilifa gu baax sax buy ñëw di wax tey ñëpp a noppi kilifa diine nag ak kilifa àdduna moo ci yem kenn nekkatul kuy wax pour pour orienter te njaboot dañ koy dañuy wax ak moom di ko jubanti ku sa xel wayagul sa yar sa xel matagul sa doole nga toll ci foog ñu lay wàññi di la xamal di la tette di la won ba keroog ñu lay jox lenge yi léegi nag waa ji buñ ko deful noonu ba bis rek ñu jox ko lenge looy dégg mooy détourné na ay milliards bu dee kuñ jox xaalis la day détourné bu dee kuñ jox arme la day rey bu dee kuñ jox yat day dóor te bu dóoree day métti loolu ma sa problème parce que kenn balaa ñu lay jox dafa am benn waay bu bu jënd oto ne papa ji damaa bëgg jënd oto papa ji ne ko dangaa mën dawal mu ne ko waa jàng naa jàng naa ba pare papa ji ne ko nañ dem nañ dem principal ñu dem papa ji daal di ñëw ne yóbbu leen ma sauvetage urgence ñu yóbbu ko mu ne fi ñu accident ñi fi ñu nekk ñu yóbbu ko ñu ubbi leen saal bi ñu ne ko da nga fi am malade mu ne non dafa am lu ma bëgg a jàngal sama doom bi keroog docteur yi dañoo waaru ñu ubbi mu gis ñii seen tànk yi ñii ñii deret yi siit mu ne ma papa lu tax ngeen wëppi mu ne lii yëpp oto ko def kon li nga yor na nga xam lan la est ce que dégg nga wax bi mu ne ko lii lépp oto ko def kon yow mi war a jënd oto xoolal xanaa nga xam li ngay dawal lan la mais est ce que loolu te yow tey am na da ngay gis léegi benn oto ne la nag nga am nga sa yo kii tuuti ma saaga saaga bu bon ko xam ne li mu yor loolu la mel nag ci lépp boo demee ci ministre ba loola li ñu ko jox xamu ko tey bu ñu la falee yow léegi mun la faloon nii sa waa kër dañuy tàcc zible boo demee léegi fekk ñu ngi sabaru waaw ndax dana dogguma la dégg naa ci sëñ Cheikh Tidiane si ci ci gàmm gi waaw muy wax ni léegi sax dafa mel ni sëriñ suñu ëpp taalibe yi wax na dëgg mooy li nga wax laay dëggal ndax maanaam ñoom ñi nga xam ne ñoom lañu yaakaar ñu ñu war a wax bu ñu waxul daanaka ñi ñu war a wax kon ni ñu mel kenn du ko xam nee na fi ñu toll eh, sëriñ si ñu ëpp taalibe yi te taalibe yi moom ñoo ñoo war a ëpp sëriñ si wax na dëgg xam nga lu tax ku xëy nekk sëriñ ku mel ni man am sikib rek Waaw.
am benn mbax nam rafet ut koppati grand boobu yor kurus gu rëy ñu ne cheikh la te xam nga lu ci garaaw day commencé di indi di dajji lislaam waaw naan damay wane yàlla ak bu leen julleeg bu leen woor ak fecc leen ak te man li ma jaaxal mooy sunu diine yëpp léegi fecc la
te te te te ñiy fecc dañuy maanaam doon dañuy tuddoo sëriñ sëriñ soosu waaw waaw mais mais mais yow at yi ñu nekk nii fukki at yi sëriñ ñi bees yi nga fi xam ñaata tarixa nga fi xam yu judd ci biir judd yu judduwaat ci biir murit judduwaat ci biir tijaan judduwaat ci biir tarixa ibrahima ñas ñoom liñ fi bàyyi woon gars yi dañoo ñëw yulli ci leneen génne ko génn ci mais fuñ jëm te kenn du waxam ku mu neex nga ni nga jël dem ba ca àll ba wetu géej tekkar say sàkket mu sëriñ bi ni sëriñ nga ay xale yu góor génn di la fekk ñuy tëgg di fecc xale yi ëmb dara ñu naan leer la leer gi la leer gi waaye ba ba ban leer waaye nañ wax nit ñi dëgg ngir yàlla nañ wax nit ñi dëgg dëkk bi tas na ba pare li gën a do- gra- ñaata xale yu góor ngay dajal yu dof tey bari na te ay wirdi lañ leen di jox ñu dofloo doomu jàmbur yi góor ak jigéen barki dem ki nga fi dégg tribunal ñuy wax affaire police ki yóbbu xaw ma Kaolack la xaw ma fan am na benn jigéen bu yóbbu benn sëriñ police affaire baa ngi sis nii waa ji mu ngi ci kaso bi ñu tëj koo xam ne ay doomu yu jigéen daaw ñu sigi xool nit dem ba jigéen xale yu jigéen yi naan ko di ko tëñëx ci bopp ak naan ko diw moo lañu moo la ñu gënal xale yoo xam ne daaw ñu wax koñ bi kenn xamu leen mais commencé fréquenté benn waaye rek waa ji naan seen yuur yi waaw changé la ba déggaltuñu seen ndey ak seen baay loolu ñaata la tey ci Sénégal non problème mu Sénégal dafa bëri mbir mi suñ ko bëggee wax du jeex dafa am programme boo xam ne lii lépp nag mooy programme bu nu yàlla indil ne jigéen daf ko war a dund ci biir këram waaye loolu du ko mën a def ci biir kër gi mukk lu dul foog li muy dund mu xam li muy dund lan la l'islam boobu ñuy wax jigéen ñi ñu dund l'islam boobu la jigéen ñi réere moom waxuma sax jigéen ñi mais moom la waa àddina bi réere moom la waa Sénégal réere kon jigéen ñi foog ñu réere ko jigéen ginnaaw bu mu nekkee jàngalekat nekk yarkat mbokk yi jigéen mooy defar góor muxrijatul rijaal wa murabbiyatul abtaal jàmbaar yi ngay gis fii yëpp borom xam-xam yi ngay gis yëpp ulama wa duaat alqiyaada kan moo leen jur El Hadji Omar Foutiou lu tax tey mu mu yor ay milliards wala nangami nangami taalibe kuy yaayam yaayam de soo suñ lay wax histoire yaayam dafa liggéey nekkuloon fii di di dangal di solo ay bëri yor ngeen di saag nekk ci mbedd yi di- di- def rosa di cappi-cappi da ngay dégg ñu ne la naa fi naa la jël benn misaal Cheikh Ahmad Bamba da ngay dégg ñii way maam jaara naan mësta julli te jàppul mësta wirdi te ñaanu suñ ko dessiné sax da ngay gis ci wetam ñu def ci kurus kaamil satala satala muur ko ba mu rafet tey boo jëloon juróom-ñaar fukki junni jigéenu murit mel nañu noonu bari na waaw léegi nag ñu ñuy tëddoog sëriñ bi bëgg a mel ni bëgg dugg fi mu dugg te li sëñ bi doon def wala wuy juróom bi ni mu meloon ñu lànk ne duñ ko mel
dañu am dañu bëgg mais innal muti liman yutiw mutiun innal muhibbu liman yuhibbuhu muti ku bëgg da ngay topp li nga bëgg mais imaginel ku ne man nangam laa ba pare tey jii buñ ne dañuy dem ci jumaa ji ñëpp muuru buñ egsee ci kër yi sànni kol yi buñ ne julli jot na ñëpp muuru bu julli gi passé ñu sànni kol yi
du am sens ba ba njëriñ la am waaw kon mbokk yi ku bëgg a ànd ak ñun rek mën nañu ubbi nañu téléphone yi 33 864 38 88 kon su ko defee 33 864 38 88 ku bëgg Jigéen- a mën na jaar foofu jigéen mission am dafa rëy jigéen mission am dafa màgg mission mooy moom mooy defar keno yi keno yi yor àddina jigéen moo koy defar jigéen mooy defar borom xam-xam jigéen mooy defar wootekat jigéen yonte bi sallallahu alayhi wa sallam réussir na ci wooteem lu bari c'est parce que ay jigéen dañ cee jàpp xoolal keroog ba yonte bi sallallahu alayhi wa sallam jógee xaaru xira ñëw tiit naan zammilu nii dassiru nii kan la fekk kër ga Khadija bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy dalal xelam ba tax jigéen ju baax ju am sago nit di ko war a bàyyi sa kër léeg-léeg sax nga xëy xalaat daal ne man nangam war naa koo def ndaw si ne la déet déet ah man de gisewuma ko noonu man kat wax dëgg yàlla maa fi nekk loolu boo ko defee nangam ak nangam ak nangam du du gis nga nga deltu ginnaaw da ko bëri mais imaginer bu doon jox lii la mu ne coupé robinet ba demal demal ca teen damay damay arrêté robinet bi mu ne la demal est ñu ñëw dindi bi compteur bi ndax ñii dañ ñoo yab gis nga moo tax nit war na bàyyi jigéen joo xam ne ku am xel gis nga Khadija keroog ba yent bi tiitee Khadija moo daw ñëw dalal xelam ne ko yow waa yàlla du la dofloo yàlla du la toroxal ndax yow nangam ak nangam a nga baax di ko waxal jikko yu baax yi muy def bal sax bàyyi loolu nañ nelaw ba suba bu ñu xëyee ñu dem ci waraka sama papa bu ndaw la mu xoolal ñu lii lan la gis nga mais bu doon tey benn ci sunu ndakaaru yi la xale yu jigéen yi góor ñëw naan la jommi naa guddi gi da nga naan man fa nga demoon ba jommi sama yoon nekku ci jël say bagage xaw ma da ngaa jommi xaw fii ma doo ko fi waxee man moom du ñibbi seen kër dafay am yoo xam ne dañ koy def li ko waral yëpp nag mooy ñàkk formation bi mu doon wax sànq jigéen mooy defar wootekat yi di nga jàng ci histoire diine ginnaaw yonent bi saa salaam Aboubacar xoolal yonent bi saa salaam keroog ba mu demee kër Aboubacar waxtaan ak moom ba xamal ko ne damaa war a gàddaay kenn jàngul fenn ci siira Aboubacar dajale na ay doomam ne leen damay dem indi leen ma nangam yow Sumaya yaay def nangam yow Asma yaay def nangam yow Abdallah yaay def déedéet mu dafa dem rek ànd ak yonent bi waaye xoolal xale ya xam nañ ne seen papa ak yonent bi kat war nañu aajowoo lekk war nañu aajowoo naan ka ca gën a mag muy Sumaya muy Asma yonent bi tudde ko zaatu ni taqay ni borom ñaari mbuus yi mooy bàyyi ba guddi dama lay laaj dama dama bëgg rek nga imaginer màkk septième siècle ak tey boobu nan la waroon mel ndaw xale bu jigéen togg ci guddi gi def ci mbuus tànk ndox def ci mbuus yenn ñaari mbuus yi xuus xuri màkka boo demee ba fa abubakar yonte beeg abubakar duggoon bañ ne la fii la nga xalaat ndaw si diggante jéego yi mu def ba yegg si fii ci guddi googu nga xam ne ñooñu am na moo tax yàlla fay leen daal du hasard kamaatu diinu tu daanu li nga leble moom lañ lay fay waaw ñooñu dañoo liggéeyal diine ji yàlla fay leen ñi nga xam ne moom ay lu ñuy liggéeyal euh, salon ak dangal ak kii yàlla ay mbër la leen fay ak ay rappeur ak ay musiciens leen yàlla fay ñele doon liggéeyal yàlla yàlla ay kilifa diine la leen fay ay Malik Shafi ay Ahmad ay Ha- Abu Hanifa ah ay Omar ibn Abdul Aziz loolu leen yàlla fay parce que ñoo doon liggéey ma ni loolu sax dafa sori sunu diine ji fii rek sunu dëkk bi fii ñi doon liggéeyal yàlla yàlla da leen fay El Hadji Omar yàlla dafa fay yaayam parce que bu ñu la nettalee yaayam li mu doon def nga xam ne yàlla la ko fay Cheikh Ahmad Bamba ngi nii keroog dégg naa soxna Jaara bu muy dem këram ñu koy muur muy dem kër borom këram dana jox leen ma kaamil ñu ubbi mu daj suratu ahzab aaya ban aaya la la la la génne wa muhammad wa ma muhammad illa rasul xarxalat
mu ne ah daal di ub kaamil ñu ne ko lan la mu ne ah beneen yonent dootul am bu ma ubbi woon fii moom ma gëm ne dinaa jur yonent waaye yàlla nee na yonent bi maa kaana muhammad aba ahadi min rijaalikum walakin rasulallah wa xaatama ni mu ne yonent yi kon tëj nañ ko kon mu ngoog mënatuma jur yonent waaye dinaa jur ku baax ni loolu la xam nga sabab bali insaanu ala nafsihi basira ñoom xam nañ seen bopp ñeneen ak ñeneen noonu la ñoom jigéen ñu baax ñoo ñu nga xam ne daaw ñu nelaw guddi ndax naa fi la foo leen gis ñu ngi yor kaamil quran di jàng foo leen gis ñu ngi zikkar seen tur yi kenn du wax lu bon seen wet kenn du yàlla daf leen fay mais ñi nga xam ne sam waay toog ci mbedd yi ci garab yi ah nekk ci tal yi ndeyale seen bopp tal yi di darti darti dugg ci association yi dugg ci kuréelu koppor yi lu leen yàlla fay dara mu ngi nii sonn rek sonn rek tooy rek yaram buy métti dee dem safara mbokk yi li yëpp ñu wax borom bi tabaraka wa taala moo nu ko nettali li yëpp ñu wax nag du mun a nekk ci jigéen lu dul jigéen gi nekk ku baax li takuna uswa hasana wa qudwa tayiba il faut mu defar bopp jigéen pour mu nekk royukaay ku nekk ku baax mu nekk royukaay mu nekk ku baax fokk ndaw si defar boppam munul defar boppam nag lu dul mu jàng jàng jàng buñ ko waxee jàng diine tax may wax ndax diine mooy defar nit gis nga fi ku jàng ba yey diplôme am lu nekk waaye du wax lu baax du sol lu baax du def lu baax jàng na mais diine ngay jàng diine aar la diine mooy moom ngay jàng diine aar la mooy sharia sharia mooy programme bi yàlla indi muy baaxal nit jigéen ak góor a yem lépp lu ñu jàng tey jii ñi ñuy tuumaal ay milliards ci Sénégal yi jàng nañu wala jànguñ
jànguñu
gis nga pourtant dañuy indi fi benn benn benn kii banque comptable banque ñu ne ko yow nangam comme aban diplôme nga mu ne temps ñu ne ko temps ngay gérer ñetti fan nga dégg xaalis ba dem na jàngul diine moom jàngul diine mais nasaraan gi mu jàng moom raw ñëpp mais lu tax mënut a gérer parce que jàngul diine mais bu dee ku jàng diine mbir mi saa yu ñëwee fekk ko fa ndax du ragal nit ñi mais yàlla lay ragal xoola Umar ibn Abdul Aziz fan nañ ko président mu réunion gars yi ba pare benn waaye soxla ko ñëw toog mu ne fay mu ne mu ne mu ne mu ne kii bëkk néeg bi fay lampe bi kooku fay lampe bi moog waa ji ñuy wax ci leen waa ji ne ko eh waaw lu xew lampe bi am na pétrole mu ne ko lampe pétrole bi pétrole jullit yi la te ma yow lii ngay wax man ak yow sunu mbir la pétrole bi jullit yee ko moom man ak yow li ñuy wax sunu mbir la ñaata sénégalais yi nga xam te yu yu yu yor auto gouvernement bi essence peuple bi xaalis peuple bi di leen fay te peuple baa ngi nii di dee ñuy lekk riba di lekk ñàkk jullit yi di lekk direct da ngay dégg sax ñu ne xaw ma rongoñey baadoola mooy siim cerey buur loolu da koy dégg ñu olof di ko rongoñi baadoola mooy siim cere buur cerey buur wax bu garaaw sax dégg nga wax jooju nu mu graawee rongoñi baadoola mooy baadoola yi nañ nag fële di dee waaw buur di jël seen rongoñ yooyu def ko meew def ko lenn def ko cereem di lekk te loolu te rangooñ yooyu sax mooy ay seen i àq la ñuy jël waaw mooy rangooñ yi mooy àq gi da ngay bay gerte gi ba pare ñu jël ko jox la bon bu amul dara waaw du ma xëy gerte gi xam nga yóbbu nañu ko lekk waaw.
nga yor këyit këyit gaa ngi nii correct correct mu ngi nii waaw léegi yow lii loo ñu mën a am Waaw.
banque boo dem ñu ne la non kii waaw kii kii dara yow loolu loolu gisoo ko loolu am fi tey ci dëkk bi te kenn du ko wax léegi bu kooku fu muy jooyee du am fu ma ko jooyee fenn foo ko jooyee doo ko am yeneen nag ci bay mun nañ ko joxe misaal ci fu nekk ci biir société bi mbir yooyu nag xam nga lu ko waral mooy ñàkk a ragal yàlla Omar ibn Abdul Aziz bi mu nekkee amirul muminin dafa wutoon benn ministre boo xam ne xam nga ministre bi lu tax mu fal ko da ko teg ci wetam rek ministre bi falewu ko leen lu dul ittaqillah su jekkee rek mu ne ko président ittaqillah ragalal yàlla ibnu muhajir la tur omar ibnu muhajir fii la doon toog ci ginnaaw su toogee nii di wax ak nit ñi moom fii lay toog day jékki-jékki rek ni ko fëpp rek ci ginnaaw xëcc mbubb mi gësam ko su waa ji gëstu mu ne ko ragalal yàlla ñu koy fàttali muy ragal yàlla ñu fàttali ko mu ragal yàlla bi mu amee doom daf ko indi ci benn benn borom xam-xam ne ko jàngalal ma ko ndax yaakaar naa ne kii bu ma faatoo moo may doon borom xam-xam bi ne ko waa baax na benn bis rek borom xam-xam bi woo xale bi ne ko pestaat ba noppi wiir wiir ba xale bi déggatu ko xale bi daal dem toog mu ne ko demal toog xale bi toog ay at buur bi daal di génn àdduna xale ba falu mais gis nga pes bi ñu ko pesoon ba mu nekkee xale la ba mu amee juróom-ñaari at mais mënu ko fàtte dafa ne waaw sëriñ diw moo ma doon jàngal la ñu ne waaw mu ne mu ngi dund ñu ne mu ngi dund mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne ko waaw sëriñ nga def mu ne ko maa ngi fi ci loo ne mu ne ko maa ngi ca daara ja rek mu ne ko waaw sëriñ yaa ngi may fàttali bu ma doon jàngal mu ne waaw mu ne ko benn bis pes nga ma pes moo xam ne ba fii ma toog fàttewuma ko waaw sëriñ keroog lu ma defoon ba nga pes ma sëriñ ñu ne ko jërëjëf mu ne ko dama la bëggoon jàngal benn masala mu ne ko ban masala nga ma doon jàngal pes boobu nga naan masala mu ne ko tooñ laa bëggoon nga moytu ni ko parce que sa baay day dee nga toog fii ma bëgg nga fàtte nga bañ a tooñ ndax gis nga ba ma la tooñee ba tey fàtte woo tooñ gi loolu laa la bëggoon jàngal tooñ kuñ tooñ du ko fàtte mukk buñ la tooñee doo ko fàtte mukk loolu ni def lu bon ba yowmal qiyaamati doo ko fàtte mu ne ko loolu nag laa bañoon nga toog fi ci jaam ñi di leen tooñ ndax tooñ dafa metti kenn du ko fàtte gis nga yàlla moo tax mu ne inni xaramtu zulma ala nafsi wa jaaltuhu muharramun baynakum fala tazaalamu man yàlla sama bopp araamal naa tooñ moo tax tooñ ma def ko seen diggante muy lu araam kon bu leen tooñante da ngay tooñ dem tëdd di nelaw waa ji nga tooñ lal deram jàkkaarloog yàlla ah tanaamu aynaaka wal mazlumi muntabihun yadu alayka wa aynullahi lam tanami yàlla du nelaw nga dem tooñ nag tëdd di nelaw lekk alalu nit ñi def lu la neex tëdd di nelaw am na ñoo xam ne kenn du leen tooñ gis nga Tunisie histoire bi la rayal rek benn xale rek lañ dóor xale bu jàng université jàng ba yëy këyit amul lu mu def mu puus puusam pour ay banaanaam di jaay taxaw ci benn barab ñu fekk fa lii fekk ba mu nooy ne ko waroo fee taxaw mu taal boppam lan la jur tey président ba taw beneen dëkk tàkk fi mu nekk nii nit ñi ba démb baax rey ni ñu ngi rey ay nit te moom kenn moo ko waral gis nga fa taxu fitna laa tusibanna lazina zalamu minkum xaasa loolu da loolu leer na Tunisie la woon Égypte jël nañ ana buur ba tey mbir yaa ngi baax rey ni Iran dëkk yooyu yëpp a ngi yëngatu ba Libye Soudan yëpp a ngi yëngu nit ñi di dee lu ko waral benn nit tooñ dafa baaxul yàlla bugg ko programme bi nit di dund du tooñ nag mooy diine ndax diine moo lay yem moo lay xamal fi ngay war a yem diine moo lay xamal li nga moom diine mooy xamal li nga war a def ak loo war ta def doo jël alalu nit ñi boole kook sa alal ni ko tungaaj toog di xool da lay xamal ne lii nga moom lii moom moo ko lii boo ko lekkee yàgg bo yàlla borom jaam ñi la du yàgg jaam ñi te yàlla yàgg borom jaam ñi ëllëg foofu foofu nag la nit ñi ndeysaan fàtte koo fi ne bàyyi naa la ak yàlla mu ne la sama xarit la wala sax mu ne la sama maam la bàyyi ma wax ku baax loolu lay gëmloo bu dee ab politicien la mu ne la politique eggul alaxira dama lay ndax lekk li nga yor ndax eggul alaxira fii la yem xool caaxaan yooyu fii la yem di tooñ di lekk alalu nit ñi ne fii la yem xal-xal mawta wala xayaatu da waaw li yabluwakum ayyukum waxul sax aksar li yabluwakum ayyukum ahsanu amalan waxul sax aksar amal parce que nit yu bëri te seelul baaxul amul njëriñ mais yàlla moo leen bind nattu leen wàcc leen kaw suuf pour mu xool kan moo gën a rafet li muy def lu rafet lépp looy def mu ne la rafet na rafet sooy wax sax mu ne la rafet ah même ahlul kitaab ngay wax ak ñoom duñu ay julit yàlla mu ne wala tujaadilu ahlul kitaabi illa wala firawna ni mu kàccoore sànq ñu ngi ko doon wax bi yàlla yónnee Moussa lu mu wax yaag haaruna dem leen fa qulaa lahu qawlan layyinan kon diine moo war diine lu baax benn borom xam-xam bu mag nee na saa yoo gisee lu manqué ci nit diine la fu manqué ba nga naan cam place diine moo fa nekk nit mën naa sangu ba set nga yóbbu ko ci machine ñawal ko yére yoo xam ne kenn solu ko ci dëkk bi defal ko lépp dugal ko oto mu wax rek nga dégg ñu ne cam diine la place diine mais doo gis ku ñu yar ci diine nangami at ah ba ñëpp ne bismillah ñu ne ko waxal nit ñi ne cam amul fenn ci àdduna ah diine mooy defar nit diine mooy defar góor diine mooy defar jigéen diine mooy defar mag diine mooy defar ndaw waaye lii lépp du mën a nekk diine jooju lu dul kii defaru jàng la muy jàng mooy programme bi yonent bi indi woon mooy diine tey nag bu ñu nee diine mooy defar nit ni defar a jàng diine waa Sénégal lan lañ gën a mujjël ginnaaw mooy diine ñoom ñoom ku jàng jën da nga tardé
tey boo amoon doom mu am juróom-ñaari at nga ni maa ngi koy yóbbu daara lan lañ lay wax ah yow tamit xale bi xale bi yóbbu ko mu def kii nangam nangam te te réalité yi wan nañ réalité yi li mu ñu wan mooy jàng français taxut a tekki dañ naan la tey boo amooy doom di ko jàngaloo diine dañ naan la du tekki te tey booy xool réew mi ñi fi jàng diine yëpp ñoo yor kër yi bu dee jigéen bu dee góor waaw la ñuy def sax ci kër yi kenn du ko def diina jee tax parce que ku jàng diina du soxor ku jàng diina lu mu am bokk kook nit ñi bu dee góor bu dee jigéen lu mu am bokk ko tubaab nag lu mu lay jàngal jabar doom xaj booy tëj karaj waaw ba pare daal di bind ci bind kër gi ici cinq méchant waaw li muy njëkk a xalaat tey boo amee doom yar ko yaru tubaab li muy njëkk a xalaat boo amee xaalis day dem ba Nord Foire jënd fa benn appartement tabax ko ba mu rafet takki jabar dem fa yow ñu bàyyi la fii yow seen bàyyi bu dee nitu diine moom lu mu am moom ndeyam ak bàyyam a koy bokk ci biir kër gi lay dee ut fi ñeenti jabar ut fi fukki doom ndeyam ak bàyyam nekk fi jabaar yi nekk fi sët yi nekk fi jigéen yi nekk fi gan yi nekk fi da kër yi sax dañ daan dem ba am këru gan néegu gan tey looya non booy ñëw woo ma téléphone ah da ñuy woo téléphone ah boo ñëw ñu ne sóoraale wuñ la waaw waaw borom xam-xam bi nee na kuy kuy sol kilo di sóor kilo ku sukki ndamam mu ne kum kon yal na yàlla jubal su ko defee ñu xam ne àddina bi pour mu baax pour jigéen egg ci mbaax mën a baaxal àddina foog ñu jël ko delloowaat ko ca la baax loo woon jigéen ñi démb la taxoon Khadija baax Aïcha baax Zeynab baax Umu Kalsum baax nit jigéen ñi baax jigéen ñi suñu bëggee baax dañ leen delloo foofu rek mbir maa ngi fi bu fekkoon ne dafa amatul woon dafay jógee ñu ne nekkatu fi mais la baax loo woon ñooñu mi ngi fi mi ngi nii teg suñu kanam la taxoon ñooñu baax mi ngi nii yàlla nee na buñ ko defee rek baax loolu kon yàlla wàccoo na ak ñun yàlla tabaraka wa taala wàccoo na ak ñun ndax tëral nañ ñu programme bu baax indil nañu liy baaxal jamono lépp loo xam ne day yàq suñu dund day yàq suñu environnement yàlla tere ñu ko buñ ko def waxuma la sax waxuma la sax mais gis nga tey mbedd mi nii amoo droit def fi lu la neex ci lislaam noonu nga naan yow man dama am liberté lu ma neex def boo yoroon tey rajo day rajo di déglu alxuraan rajo bi dañ la ne na yem sa biir nekk yow kese na nga ko déglu mais imaginel tey da ngay gis kuy waxuma la rajo mais ubbi sa leeru ci biir nit ñi dëkk bi kenn du nelaw te man léegi li ma seetlu biir Sénégal mooy biir Dakar mooy balaa jàng yi di commencé minuit 10 heures jot ñu bàyyi ba dimanche ci guddi ñuy jàng léegi nit ñi dañuy xëy wala ñu bàyyi ba mardi ñu indi seeni tabala jëm 4 heures du matin nit ñi di xëy mercredi ñuy lor ngay lor sa dëkkandoo ah tere ko nelaw yenn saa yi haut-parleur yi nga samp ko ci buntu këram affaire yi di yuuxu ñu koy tuddee programme mu diine loolu du diine diine musta santaane loolu même bu doon jàkkale sax soo noddee pare fayal micro bi même jàkk sax amoo droit noddu ba pare di teg alxuraan fajar gi te da nga koy gis da nga koy gis si dëkk bi du jeex parce que loolu yëpp ay njuumte la ñàkk a jàng diine di déranger nit ñi dafa ne yaa ngi ci diine di ko layee diine fekk dara du ci diine ay déedéet diine musta ñëw pour lor nit diine dafa ñëw pour defar doomu aadama pour baaxal loolu moo tax diine ñëw yàlla tabaraka wa taala moo ñu ko wax ci quraan yàlla dañ ne maa kaana li muminin wala mumina ida qada allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul xiyara min amri jullit bu góor a bu jigéen a yam lu leen yàlla sant rek waruñ ci wax um wala ah def rek def te yàlla li mu la wax yëpp nga def ko soo defee gis sa njëriñ yàlla bu nee bu kenn sàcc yow lay aar tey da ngay gis ku portable mod fis baa ngi ci waa ji woote allo asalaamaaleykum waaleykum salaam ah sëñ bi nga dégg añ ne la non sëñ bi mun nga wut beneen ndax man marque bi rek laa doon wër wala demal place sàngam foofu laa dëkk boo demee nga laaj ci fekk mi ngi nii di dox ak yow mi ngi lay séen li garaaw mooy da lay daf lay daf lay déplacé loolu encore déplacé waat loolu ak xaalis nga génnewaat fekk dara du ci dëkk xam nga loolu réerul parce que jot nga wàcc beneen bi mooy carte banque carte d'identité calpe yooyu yëpp nga far ko numéro téléphone nekk ci kooku dafa réer kooku réerul mën ngaa woote mun ngaa woote xoolal tey seen rajo yi ñaata yoon ngeen di def dek déclaré lu réer ci ci ci oto ñu fàtte ko ci taxi du feeñ mukk te yow nga ñëw ba fi nga wàcc boromam waaw boo dellu si waatoon foofu yaakaar naa boo ko boo ko laajtee di nga gis wala nga dem ci benn rajo daal de for naa nangam waa ji dina ko wax dégg wala ñu dégg ko mais fii tey looy looy ku for delloo sax nañ la yow dof nga dootoo tekki tey boo fi foroon million delloo waaw ñun doo tey dañ naan la yow torox nga yow see loolu lañ lay wax yu bon yooyu nag la ñu encouragé dëkk bi jikko yi yàqu ñu encouragé mbon gi encouragé bon gi ba kenn xamatul nit ñi fu ñuy teg seen tànk waaye yàlla lim ñu wax moom mooy dëgg moom mooy yàlla diine la ñu indil mu nekk programme buy jagal sunu àdduna di jagal sunu àllaaxira borom bi tabaraka wa taala mu ne nu walaw anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min alsamaai wal ard waa asamaan ak suuf waa suuf sunu gëmoon yàlla ragal yàlla yàlla nee na ma ubbi xéewal yi la fatax naa la wax baatu fat lu muy tekki damay ubbi lan lay ubbi barakaat barke waxul xaalis de barke la wax damay ubbi asamaan barke gi wàcc te ya- barke nekkul ci suuf si wa fi samaa'i rizqukum wa maa tu'adun yàlla lim ñu dencal asamaan la nekk nekkul ci kaw suuf kon mbir yooyu foog ñu bàyyi ko xel foog ñu ñun jullit ñu delluwaat suñu diine foog ñu gëmaat suñu diine ab jullit du am complexe tuddal nu la neex jigéen nga bul am complexe ci sa diine solol ni sa diine bëgg doxeel ni mu bëgg defal ni mu bëgg dundal ni diine ji bëggee waaye bu fekkee ne yow jullit bu jigéen nga Aïcha sax lañ la tuddoon léegi nga daal di changé sa tudd changé sa kawar changé sa ya couleur yaram ah sa yëre nga changé dàll nga changé dem di roy ab nasaraan te yàlla waxoon ne waya wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yaruddukum an diinikum in istataaw du ñu deñ di leen xeex di leen xeex feeg yéen a ngi nekk ay julit su ngeen nekkee ay julit rek mais feeg duñu leen bàyyi
ñoom ñoom seen pexe mooy bu la seen pexe rek mooy yéen bu la nekk jël bu leen nekk julit na ngeen dee ci ñoom liñ nekk loolu rek mooy seen programme moo tax gis nga ñu génne jullit yëpp ci lépp ci lépp ñaar yi ci ñi ci gën a génne nag mooy ndaw yi ak xale yu jigéen yi waaw ñoom la ci gën a yàpp ñooñu moom daanaka programme yi am ci àddina bi yëpp ñoom lañ ko tëral pour buñ jaamu yàlla léeg-léeg ñun dañu dëkk ci wetu stade fee léeg-léeg ma wax est-ce que nawetaan am na France mos ngaa gis waa France di nawetaan waa Angleterre mos ngaa dégg ñuy ñuy France ñuy ñu nawetaan Amérique nag nawetaan dëkk julli ji rek nga koy dégg bu njëkk ba da ngay jàng ba école tëj nga dem ci àll bi dimbali ji sa ndey mbaa sa baay ci tool ya loolu lañ doon wax nawetaan mais tey da ngay jàng ba école tëj nga nekk ci stade yi di football ci xel rek tey man bu ma jàngoon ma nekk université jàng ba école tëj ma dellu suñu dëkk ma jël fa benn hectare u gerte bay ko ak ma nekk fii di football bu bu année bi jeexee ban moo ëpp njëriñ maa bàyyi woon moo gën moo fa jël léegi yow nga nekk fii football ba mu jeex ba année bi jeex nga war a delluwaat université loo fa yóbbu gis nga même bu dee xel laa wax même bu dee xel rek xel xam nangu ko nanguwul sax nit nekk ci football di football guddi football ba di football bëccëg xumbal guddi football bëccëg xumbal guddi ba nawetaan bi jeex ñetti weer yi jële amoo ci ab 5000 francs lan lañ ci jox coupe coupe ab benn kaas kaas goo xam ne boo ko fi tegee fii ren ba déwén mu funax ñuul coupe du or du xaalis du përëm kenn xamul lan la ah ah waay ñooy doon weñ gu ñu coupe nga ne loolu laa gagné woon loolu la njëriñ la amul doon yooyu ak nga dem ci toolee fee tey loo neex bayal ba yàlla defal la xéewal ba mu ñor ba nga jaay looy def
loolu dafa ko xam man fay say soxla damay faral di wax ne Sénégal bu ñu ñaani jee ceeb wala ñu ñaani dugub wala ñu ñaani diw diw wala ñu ñaani lu ne ñun ñun daf nu neex espace suuf du jeex ndox du jeex ah lu tax du ñu encouragé nit ñi ci loolu ci léegi lan lañu encouragé nit ñi ay PMI carte dem jënd fee tey boo jaaroon nii di nga gis ay xuffaasu PMI xam nga Sénégal dama- daaw dafa amoon da- année yu as passé dafa amoon ay xuffaasu Qur'an dëkk boo dem ñu ne la nangami kàng fóore ñoo fi nekk tey xuffaasu PMI la ñoom day gis léegi benn Sénégalais bu lay wax benn fas bu juddoo Angleterre juróom-ñeenti maamam waaw waaw fas bii nangam mu ngi mel ne moom dafa ju- moo juddu woon fas bi ay këyit la ko jàng ba mokkal fas
nañu yàlla jubal wax bi kenn du ko wax mun a wax ba mu jeex dañ koy tënk bàyyi incha allah lenn li ak mbokk yi bu ñu amee ay laaj ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq yéen ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñu ngi leen di remercier bu baax a baax a baax ñu ngi ñaan yàlla tabaraka wa taala mu barkeel seen liggéey barkeel seen rajo bi ñu ngi leen di jox suñu kàddu incha allah saa yu ngeen ñu soxlaa rek ñu ngi seen wet bu soobee yàlla asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf oustaz wax dëgg yàlla waxtaan am na solo mat na mat la na boo gisee booba rek dagguñu la li ngeen wax dafa am solo am ci yëg-yëg boo xam ne wax dëgg yàlla ñi ñuy déglu ñëpp ñu ngi jariñu kon ñu ngi lay sant bu baax noonu lañu ko bëggee woon comme ni ni ni ñu ko waxee rek jigéen moom mooy nisul mujtama comme ni nga ko waxee maanaam adduna bi buñ ko xaajoon ci digg bi jigéen mooy benn xaaj te bi waa ji ñëwee ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam laaj ko kan la war a gën a fonk kan la war a gën a teral da da da da ko waxoon yaayam kon jigéen gis nga te wax nañu al ummu madrasa moom moom moom école la te lépp lu mu fa waajal rek buñ ko génnee rek loolu ah dañu war a roy ca moom kon jigéen am na cër gu rëy rëy boo xam ni moom war na xam boppam ndax yàlla subhaanahu wa taala comme ni nga ko waxee ci alquran sax buy lim ci suratul ahzab fu mu tuddee góor rek tudd jigéen di wane ni góor responsabilité bi mu am ngir defar jigéen responsabilité boobu boobu la am tam moom it ngir defar ndax comme ni nga jàngee xaddis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni am na ñuy denc soxna ngir taar wala ngir askan wala ngir alal waaye nee na na nga tànn ngir diine ndax boo ko deful dóor nga sa loxo ci ëkk ndax taar da dafay jeex alal day jeex askan day jeex waaye diine mooy li nga xam du jeex inna diina indallahi al islam kon diine ci yàlla rek mooy islam moom mooy programme mi nga xam ni buñ ci jaaree li ñu bëgg dinañ ko mën a am ndax ginnaaw jigéen ni nga ko waxee moom moom mooy nekk yaay yaay mooy jur moo war a yar moo war a jàngal moo war a toppatoo yu bëri bëri nga xam dañ ko jël wékk ko yaay te wékkuñu ko bàyyi ndax bu dee ci jaamu yàlla bi ni nga ko waxee ñoo ci bokk yem góor gi bu jullee dañ koy fay jigéen ji bu jullee da dañ koy fay ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi jàngal ni almaratu isa sallat xamsaha wa saamat sahraha wa wa taat baalaha wa wow daxalal jannat rabbiha bi xayri xisaab kon nee na jigéen bu julli waxtu yu juróom woor weeru koor topp bërëm këram ci lu neex yàlla nag maanaam bu bu mu ko ne xeesalal mu xeesal bu mu ko ne meesul mu meesu waaye na ko topp ci lu neex yàlla nee na boobaa dina dugg ajjeenee borom ndax misaal nga ko firaw na kàccoor la woon waaye soxnaam dafa toppoon programme ñi nga xam ne yàlla subhaanahu wa taala moom la digle woon moo tax gis nga ma nga àjjana waaye yonte yàlla noo ak yonte yàlla lool li ñuy baax baax baax seeni soxna ña nga sawara ndax programme bi yàlla joxe woon nañ ci jaaru fa xaanataahuma waaye fa lan yuxniya anhuma minallahi shay'a dañu war li ñu war mooy programme bi nga xam ni moom la yàlla subhaanahu wa taala rëdd mu ni nañ ci jaar wa anna haza siraatul mustaqim fa tabihu wala tatabihu subula nee na sama programme daal mi ngi nii mooy yoonu jubbi jaar leen ci te ku ci jaar rek incha allah di nga bëgg dënkaam kon tënkam ngañ daal wax ni daal jigéen mooy lépp moom moom mooy yaay mooy soxna ndax it soxna moom tamit am na rôle bu ko waw war ci kër gi loo xam ne moom moo ko war a taxawee ni ni nga jàngee aaya bi waxar na fi bu yëwtiku na wala tabarañ na tabaru jël jaayati ula waaye gis nga wa aqim na salaata wa atina zakaata wa atina laha wa rasula innama yuridullaha li yasaba ankum risa ahlul bayt wa yutahhirakum tathira kon programme bi bokk na ci programme jigéen néewuñu ko noonoo bul liggéey néewuñu ko bul génn waaye lu ëpp ci programme mooy ci kër gi la ko war a def ndax yàlla moom moom moo ko wax ni saxal ci kër gi wa xar na fi bu yëwtiku na na nga fi sax ndax yaay yaay togg yaay fóot yaay bale kër gi ku ñëw yaa koy recevoir ba xam lan lay wut xale yi bu ñu jàngee bu ñëwee bu ñu ñëwee yow lañ fi fekk lépp ku ñëw yow la fi fekk kuy dem yow la fi bàyyi kon yow yow yow da nga war a toog yor kër gi di ko surveiller ndax bu baaxee rek bu baaxee rek ku ñëw kontaan kullukum raayin wa kullu raayin mas'ulun an ra'iyyati ci la koy ba ba ba wax ni wa zawjatu raayin fii bayti mi gaw ba ci alalam sax sàmm la ci ndax moom moo koy jox dépense waru ko wàññi wala bu ko yokkee bu ñëwee war na ko wax warul def lenn loo xam ne bu borom ko borom këram ñëwee du ko yëg ndax moom moo ko fi wuutu moo ko fi toogal la mu waroon def yàlla moo ko ne def ko bu ñëwee nga rendre ko compte bu nekkee lu ñu war a yokk mu soññ la bu nekkee lu ñu war a rectifier ah léem rectifier la kon jigéen gis nga kon am na rôle bu bu bu mag a mag boo xam surtout ci ci wàllu soxna bi nga wax lu lu am solo la ci ci ci wutin wi ku góor ki tamit war nañ ko seet comme ni nga ko waxee ndax yonte bi sallallahu alayhi wasallam moo xam ne ku góor ki nañu seet diineem ak jikkoom bu amee diine ju baax am jikko nañ ko may nee na bu ñu ko deful na bu ëllëgee bu ëndee fitna kon loolu benn problème lay moom lay indi kon oustaz da nga tënk rek wax ni jigéen mooy lépp ndax ñi nga xam ne ñoom la ñu wax maanaam maanaam al ulama mooy borom xam-xam yi te ñoom ñoo fa wuutu yonente yi sallallahu alayhi wasallam ñoom jigéen ñoo leen jur ñi nga xam ne ay doxaat lañu di woote di leeral diina ji di ko tas ñoom jigéen ñoo leen jur nga joxe ci ay ay misaal yu bari yu mel ne ay ñoom soxna Khadija ba ci doomu Seydina Aboubacar ba ci soxna Firawna yu bari nga xam ne jigéen am na taxawaay bu rëy boo xam moom bu ko taxawee rek incha allah ah mujtama bi dana baax. kon jigéen moo war a xam boppam war a xam ne dafa war a gëm yàlla comme ni ko góor war a gëmee gëm ponku juróom-benn yi gëm yàlla. gëm téere yi gëm malaaka yi. gëm gëm yonant yi gëm yomal xiyaam yëpp daf ko war a gëm comme góor ni mu ko gëmee ndax ay ay ponkal yoo xam ne yàlla boobu bi muy lim waxul góor wóorul ah waxul jigéen kon dafa xam ne loolu ñoom ñoo ko bokk mu doon ay responsabilités yoo xam ne ci yàlla subhanahu wa taala foofu foofu la dellu moo tax mu yow waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko falaa wa rabbuka laa yu'minu hatta yuhaakimu fi ma sajara baynahum mooy programme bi nga waxoon ni ko doo gëm mukk doo def lu baax mukk lu dul yoon yu ma la rëddal da nga ciy jaar boo ci jaarul dara du mën a baax kon yoon woo mooy yoon islam kon bu ñu bëggee réew mi jàgg rek foofu la ñu delluwaat bu ñu fa delluwaatee incha allah li ñu bëgg dinañ ko am kon xam na al al alustaas damay laajaat benn laaj boo xam damay delluwaat ginnaaw rek ci li nga doon wax. lu jëm ci wàllu jigéen da nga waxoon mooy yarkat. te yar dafa am solo. te ku ku góor ki moom ginnaaw du fi toog. moom day génn lu bari ku jigéen ki war a toog yar ak sunu jamono bi niñ demee bay wax parité. daanaka jigéen ñu toogatuñu. ku ci nekk yaa ngi génn ni damay lijjanti sama bopp nangam ak nangam. te responsabilité bi nga xam ni moo war a dox ci kër gi muy muy muy dund bi muy dëkkoo bi muy faj bi lépp yàlla daf ko jël wekk ko góor ki. kon léegi ku jigéen ki yàlla subxanahu wa taala am na loo xam daf ko teggin. ba wax na sax ku góor ki bu génnee azaka mën na ko jox soxnaam waaye soxna si mënul jox jëkkëram azaka ndax moo yor dundam kon kooku léegi. naka nga leen mën a leeralee ba wan leen ni yàlla subhanahu wa taala dafa am loo xam ne dafa leen ko wàcceel ba ñoom sax gis nga ci wàllu parité bi ñuy wax dañu xam ne sax ñoom seen jëkkër bu feebaree war nañ ko mën a jël en charge seen doom war nañ ko mën a jël en charge ak yeneen waaye islam tegu leen loola islam ku góor ki la wax na def lii ku jigéen nga ne bu defee ngir lu rafet yaakaar naa loolu lu baax la waaye nekkul loo xam ne lu war la pour ñoom tamit ñu delluwaat xam ne islam jox na leen cër boo xam ne yenn coono yi buñ ko jànkonteer ñoom ñoo ko teg seen bopp alhamdulilah xam nga loolu moo tax nit ñi war a góorgóorlu jàng diine bu baax a baax a baax parce que li xel nangu mooy borom kër soxnaam ak ak ay doomam ak ñëpp ñu muy dundaloo ci biir kër gi def ci ak sotti la ñëpp ci bokk ndaw si bu amee xaalis góor gi bu amee xaalis ndaw si même bu amee xaalis même bu fekkee l'islam sant ko dund kër gi xelam li mu koy may mooy dama war a dama war a sëy dama war a jàppale sama jëkkër dama war a jàppale samay doom loolu la xel nangu ku góor ki tamit li xelam nangu mooy jabaram am na jabaram amut moom kër gi moom moo ko war a yor li mu am da ko fii indi moo xam jabaram am na moo xam jabaram amut jabaram tamit bu yàlla defee mu am yaakaar naa ne ñoom ñëpp bu ñu bokkee kër gi day dagan mais gis nga tubaab bi moo nu nax ba ne la yow ku jigéen ki sa jëkkër a lay faj yow ku jigéen ki sa mbiri bopp sa bëkk sa bëkk sa jëkkër bokku ci xam nga gars yi loolu la ñuy kaas nee nañ loolu la ñuy kaas nee nañ dañu war a jël ñoom tamit seen jëkkër en charge mais l'islam xañu xañu xañu leen loolu kenn ko xañ mooy tubaab bi tubaab bi leen liggéey loo ba pare moo la ne sa salaire yow dong la sa santé yow dong la sa lépp yow dong la sa jëkkër bokku ci mu delluwaat fee nag ne jëkkër ji yow nag li nga am yow yaa ngi ñëpp ko bokk bu dee l'islam nag l'islam du noonu l'islam moom képp ku def lu baax man amila saalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min nu man amina saali la yàlla wax min zakar aw unsa képp ku def lu baax góor ak jigéen wa huwa mu'min fala nu xayyannahu xayaatan tayyiba daa leen di gis nga waxul sax ba àllaaxira fala nu xayyannahu kër googu buñ dundee ci ñoom lu baax loolu doom yeeg jabar jeeg papa jeeg ñëpp dañuy dund dund gu neex moo tax am na ñu koy dund fi mu nekk ni seen kër yi doo fa dégg coow mais ñi ngay dégg fii ñuy jund dund tubaab ñoom doo nga dégg seen kër yi problème parce que yàlla moo xam yàlla mi xam moom moo ne nii la su nit ñi defee loolu jàmm mooy ñëw un plus un machine bi lu muy génne 2 léegi nag boo nee 1 plus 1 nga ni machine bi du génne 2 looy xew problème kon jullit yi moom li ñu war a def mooy li ñu am yàlla jox leen ko dañ ko war a dund parité góor ak jigéen ci lislaam mënul nekk walaysa zakaru kan sa alxuraan ma ko wax alxuraan moo ne inna saayakum la shatta nuróowuñ boo ko weddee rek wàcceel saaku ceeb ci buntu kër gi kenn du naa ne jigéen ñi lu ñuy wax ana góor ñi dafa am liggéey boo xam ne yenn saa yi ma romb gis ay jigéen di liggéey liggéey yoo xam ne yàllul xam nga jigéen lum moom da ngay dem dëkku naar yi nga dégg ñooy saan ñu ne jigéen yi duñu liggéey mais ñoo yay yenn saa yi nga dégg ñu ne sax góor ak jigéen dañoo war a tolloo non jigéen ñi sax waruñu nangu loolu jigéen mooy sangu góor xam nga jigéen lu ko war toog sa kër sangu ba set sul sa yére yi rafet toog sa biir saal tëdd sa kaw canapé ah jàng sa téere sa jëkkër wàcc fekk la yaa ngi leer nañ takkoo dara dama dama am benn nijaay dana dafa am ñaari jabar ñaari ji dañuy yendoo jaay mu ne bu guddee rek kii diwoo muus kii diwoo karité ñuy onk ba bët set ñoom ñaar ku ci bës seen bopp ku ci bës moromam bu jëkkër ji yendoo tës tës jabar ji yendoo tës tës guddi ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw seen yaram di metti kuy dimbali kanamam xoola yàlla bokk na ci lim doon wax wa min ayatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwajan li taskunu dal wa min ayatihi an xalaqa lakum yéen góor ñi min anfusikum azwajan li taskunu ilayha ngir ngeen dal ci ñoom dal ñoom xam ñoom ñoo war a dalal waaw foo tërërëri ba ñëw ñoom ku la dalal ku la bësal sa yaram ku la may ndox nga naan ku la masaw coono ku la tegal añ ku la tànqal ndox nga sangu mais loolu boo ko waxee tey ñu ne amoon man damay jaamam
loolu loolu la ñuy wax sax di bari du ma jaamam ti jàng bu baax mel ne jaam ah sëy loolu amu ci wa jaala baynakum mawadda kii mooy rëbbi yow yaa nekk ci kër gi ma ngay daw di tës tësi ngir yow kon war naa mën a ñëw yow it coono géemu yendoo nga fexe ba coono gi wàññeeku mënoo dindi lépp mais nga wàññi ko bokk na ci jigéen ñi gën a yées ci jigéen ñi mooy jigéen ñi wàcc seen bërëb romb leen asalaamaaleykum ñu toog ana nday tàngal ko añ bi may ko ndox mu naan ba waa ji toog ba sangu ba jóg génnaat ndaw si jóg fekk ko fa na fa ni yaay na nga def yaay nangam jóg faal ah na nga abadan du la tàngalal añ du la may ndox du la nuyu da lay romb rek danga koy romb rek mu bala nga toog nga dem toog te loolu massa olof yi nee nañ fajur góom waaye wàññi na mer ñëw fekk sa borom kër toog nga nuyu ko egg suuf ne ko añ baa ngi nii tàngalal naa la ko ndox maa ngi nii sangul ma ataa yàlla ma bës la ah wallahi am na ñoo xam ne boo leen ko defee bu ñu yendoo woon yenu 16 21 aw ciment day mel ne yenu wuñ dara waaw day woyof ci ñoom day woyof woyof ndax léegi li tas ko na ile aajo di moo tax mooy dal jigéen mooy dalal góor ba pare gis nga yàlla mu ne wa jaala baynakum mawadda wa rahma mawadda mbëggeel wa rahma mbëggeel ak yërmande bu dañee ci sëy lu fa des dara dara si amatu fa mbëggeel ak yërmande dafa am benn waaye bu doon takk soxna mu ne ko man ak yow ba ba ñuy dee dañuy nekk waaye ñu ne ko ndaw si ne ko lu la mu ne ko saa yu ma meree neexal ma saa yoo meree ma neexal wax na dëgg de waaw parce que jamono doomu aadama da ngay xëy soppeeku mënu ñàkk mënu Mënu ñàkk doomu aadama nga.
mënu ñàkk waaw waaye boo soppeekoo sa soxna ne la waaw nijaay lu xew tey xew waaw ma dafa am lu ma def wala ah bu dee man la jéggal njuumte la dama loolu doo doo- doo denc déedéet déedéet waaw waaye ah da ngay dox dox da ngay mermerlu waaw waaw yow de guddi jot mu ne lal ba sa ngam ci suuf ceinture di takk ceinture tubéy pour moom loolu mooy ndam waaw ngeen yéen ñaar ngeen nekk ci biir néeg bi kii ci kaw kii ci suuf booy dem xaas bi teg nele bu jógee boo ñëwaatee fekk ko fa mais loolu loolu loolu ay nit bi ñuy dundee noonu gis nga ñooñu ay nit lañ te nag tey loolu moo fi nekk seen doom nekk ci biir kër gi di gis ah bu doom ji demee nga sëgg bu papa ji demee nga sëgg ci doom ji sa baay sa baay sa baay sa baay moom it bu ñëwee dugal sa yaay sa yaay sa yaay doom yooju lan lay dund
ku dund ku jaxasoo day dund mooy mooy li ñuy dund tey ñun duñu ay tubaab damay faral di wax mbokk yi ñun ay jullit lañ jullit nag du dund koo xam ne mooy dund lu ko neex li yàlla bëgg ngay dund ak li yonentam te loolu lépp teraanga la yàlla li mu am yépp yiw la yàlla amul lu yiwati gis nga tey boo defee tiyaaba duñ lay fay man jaa bil xasanati fa lahu asaru amsaaliha wa man jaa bi sayyiati fala yujza illa mislaha parce que yàlla amul lu bon moo tax boo defee bu lu bon dalay bàyyi ak du gars yi sax dañu naan dalay fay mais dalay bàyyi ak benn bon bi Sa benn mais bon.
nga amul lu mu la ci tegal mais lu baax mu tegal la juróom-ñeent yàlla lu baax rek la yor saalix yàlla lu baax rek julit lu baax rek la war a yor lu baax la war a def lu baax la war a wax julit amul lu bon julit mooy koo xam ne amul lu bon nit ñi bu ñu comprendre l'islam kon adduna bi yëpp tuub nañ mais dafa am ay bandi yu nekk suñu ginnaaw ñun tamit jànguñu diine comprendre ñu ko bandi yooyu di ñu pousser pour ñu gën a wedd suñu diine bañ suñu diine tey boo nee l'islam li ñu lay njëkk a woon mooy terrorisme wala benn waaye bu yor bomb dem fi fekk marché bi explosé ko wane la bekk ñuy dagg loxoom wane la benn jigéen boo xam ne ni ñu ko muuree boo dajeeg moom da ngay jommi diaboliser l'islam ba nit ñi tiit ragal ko loolu mooy li am ci àdduna bi mais l'islam melul noonu l'islam baat bi sax moo ko wone mooy jàmm lan tudxulul janna xata tuminu wala tuminu xata tahabu ala adullukum bi cheyin ida faaltumuhu tahababtum afsu salaama baynakum du ngeen dugg aljanna du dul da ngeen a gëm du ngeen a gëm du dul da ngeen a bëggante kaay leen wax leen benn mbir boo xam ne bu ngeen ko defee bëggante mooy tasaare leen jàmm koo romb ne ko assalaamu aleykum yàlla na nga am jàmm mu ne la wa aleykum salaam yow tamit yàlla na nga am jàmm kon kooku naka ngay yoree bomb di ko teg ci ay jàkk léeg-léeg ñu ne la jàkk sàngam lañ ci teg bomb noonu ñooy def loolu man ba fii ma toog gëmuma ne jullit ñeme ngaa dem ci jàkk fekk ñuy julli nga teg fa bomb waaye ma ne boo doon jullit bu kàccoore sax doo ko def waaw jël jël jël dëgg dëgg du def loolu julli dëgg-dëgg di nga dem ci jàkk fekk ñuy julli nga explosé bomb bi mais noonu yi ñoo ñu rax rek noonu yi ñu rax noonu yi ñoo jàq ñoo ñu rax tilimal diine ci waaye ma ni loo bo- boo génnoon ci baar beeg butéelu sàngara sax tudd abdallah ñu ne la bomba ngi ni reyal ay jullit doo ko def mais xam nga li ci nekk man qatala muminan mutaamidan jazaau jahannam loolu naka la nit di nekkee beneen bi même bu fekkee benn jullit a ngi di ko def sax jullit bi dañ ko nax dañ ko réeral dañ ko wan leneen lu dul dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi woon ak sahaaba yi munoon naa bàyyi ba guddi mu ne Omar bàyyi ba guddi nga dem rey Abu Lahab wala Abu Talib nga attentat ko rey ko yonent bi mosu wax loolu bu ko defoon kenn du xam kenn du xam ne moom moo ko digle dëkkoon naag ay naafiq dafa bind liste naafiq yëpp jox Xuseyfa ne ko ñëpp ay naafiq lañ waaye bu lox seen tur nag Omar danaan bàyyi ba guddi mu ñëw fëgg buntu kër Xuseyfa koŋ koŋ koŋ koŋ Xuseyfa nag kokkan la mu ne ko amirul muminin Xuseyfa tëb amir heure bii amir lu xew mu ne ko Xuseyfa dimbali ma ngir yàlla nga wax ma ndax sama turam ci ci- sama liste sama tur mu ngi ci liste bi wala nekku ci Omar Xuseyfa ne ko yonante bi dane woon bu ma wax seen tur Omar day yëkkati bopp bi jàpp ci bopp bi di yuuxu dimbali ma wax ma ko mu ne ko yonante bi daane woon bu ma wax seen tur du ma ko waxi mukk xoolal waaw ndax julli doon day boole al xawf ak ak ak raja raja
ah gis nga xoolal ñun tey Omar moo doon tiit ndax du naafiq Omar waaw kon ñun de ñun xam ñu li ñuy def kon ki yonente bi ne law kaana nabiyun baadi la kaana Omar ah ah saani xulafa ar rachidin ah
yow yonente bi salaa salaam ne Omar yow da ngay dugg aljanna achar mu basirina bil janna Omar mu ngi ci Abu Bakr ah ñooñu tiit seen bopp xoolal ñun fi mu nekk nii ñun ñun moom yaakaar na ñun dugg nañ ba pare waaw ñun koy waxe ñun sëñ bi mu defar na loolu waaw defar na lépp lépp baax na non lépp affaire bi baax na waaw ñun gis nga am na benn waaye bu ma doon wax ñun jarul sax ñuy julli ñun julli nañu ñun lépp defal nañu ko dañ koy def ni à la légère rek yal nañu yàlla jubal yàlla na yàlla ci yal nañu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko amiin amiin yal nañu yàlla won neen mu wërsëgal ñu bàyyi ko amiin amiin amiin te ci oustaz laaj boobu wax dëgg yàlla am na solo leer na kon wane nañ daal mbir mi moom moom yar moom loolu am solo la te ki ko war a def moom bis bu ko bàyyee rek incha allah la nga xam ne moo war a am du am problème kon yar bi war nañ ci bàyyi xel bu baax surtout jigéen ñi ñu xam ne ñoom dañu war a yar dañu war a toog ci kër yi maanaam caaxaani pecc mi otes yi yooyu yëpp ñu xam ne yooyu dañ leen a nax di leen dugal ci beneen domaine boo xam ne bokkul ak ak seen domaine ndax ki nga xam ne buy nàmpal lu mu wax mën naa wuy wuyu ci doom ji ki nga xam ne bu bu ëmbee loolu lépp nga xam ne mook doom ji dañ jige jige boo xam ne kooku war na am ay melokaan yoo xam ne ngir bu ëllëgee la nga xam ne bëgg na ko ci njabootam lew mën a lew mën a am loolu waaye ki nga xam ne faaliwul loolu jàpp ne moom day dem na da- maanaam fii àdduna la boo waxee ñun fii àdduna la ñu ñun ay nit lañu. duñu ay malaaka kon il faut que ñu def nangam ak nangam te fekk dañu xamul ne àdduna day jeex daara xuruur la lépp loo xam ne defoo ko fi ci lu baax bu ëllëgee doo ko mën a jariñoo foofu kon loolu war nañ ci bàyyi xew lu baax oustaz xam wax dëgg yàlla comme nañ ko xam mawdoo bi gudd na gudd ko xam insha allah dañ koy topp ay ay ay ay ay buntu buntu waaye li ñu ci jot a leeralal ku ci nekk wax dëgg yàlla bàyyi na ci xel wax dëgg yàlla te it leer na kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm oustaz xam naa waxtu mi ngi ñu bëgg a dab ju juróom minute waaye ju juróom minute insha allah xam naa téléphone bi dafa mel ni xam naa dafa xaw a kii moo tax auditeurs yi ñëwuñu waaye insha allah xam naa waaw waaw waaw kon la oustaz xam naa kon ginnaaw waxtu mi ngi ñu bëgg a dab ñu nekk ci weeru tedd ba dag ñu ngi ci bis bi bis bi ñu gàmm bu del see waa Njaasaan ñoom tamit insha allah danañ ko ngénte waaye discours bi nga xam ni def nañ ko foofu ci Tiwaawan nga xam ne gàmm gi dañu wax ne dañ ko maam jagleel solidarité ak tadaamun ñun suñ bi waaw loolu la nee na maam loolu daal mooy résultat mooy xàll bi léegi ci ñetti minutes yu gàtt rek lan nga ñu mën a jàngatal ci wàllu solidarité waaw solidarité loolu moom l'islam moo ko jàngale te diine bi diine solidarité la diine l'islam ku ko xam jàng ko càmbar ko biir ak biti di nga xam ne diine ji diine yi lépp soo gisee li islam bi lépp lu julli di def rek def ko moom kenn lépp mbooloo nga koy defee sooy julli ñi ñu ne la war ka uma arrakin yàlla muy wax koor yaa yoxel lazina amul wax lépp mbooloo la kon loolu ñu ne mbooloo mooy doole yonte bi sax mu wax ne yadullahi ma al jamaa lépp mbooloo la da ngay dégg ñu ne yonte yàlla Moussa bokk na ci keroog ba muy ànd ak xudar di échec ba ko xudar ne yow munoo ànd ak man doo muñ mu ne ko def na ko incha allah sa tajiduni saabiran dafa génne boppam lislaam nag min assaabirin inna al muslimina gis nga wal muslimaati wal muminin wal lépp mbooloo la mbooloo mooy yërmande mbooloo mooy doole mbooloo mooy jàppalante xoolal lislaam li mu wax ci zaka azak azak xoolal lislaam li mu wax ci laysa minna man baata shab'an wa jaaruhu jaa'i laysa minna man lam yahtam bi umurul muslimin nit ñi bu ñu gëmoon lislaam mooy li ma la wax léegi nii rek gis nga lislaam su ko nit ñi dundoon kon doo gis ku yalwaan ci mbedd da ngay gis ko amuli tànk amuli bët sax te dépassam du manqué parce que danañ xam ne kii dafa war a dund l'islam day ñëw yokk dund ci jamono mu Abdul Aziz dañoo saraxe ba sarax yi jeex tàkk ñu takkal xale yu góor yi jabar yi fi des ñuy wër ci ba ñuy wër ci mbedd yi naan kan moo aajowoo ndimba
programme yàlla waaw programme yàlla tey di nga gis koo xam ne jox mbokk jullitam pour mu dund mu dem fee fekk benn sabar mu may fa cent mille xoola xoola soirée yi di nga gis ku ñu ku ñu tudde benn daara rek daara alxuraan xam nga bu fay dem lu mu yóbbu dix mille ñu tudde ko benn soirée xam nga lu mu yóbbu un million maye carte carte carte grise waaw ndax da ngay dégg sa or ñu dàq caaxaan ñu naan oto bi diw moom a ko may di tudd turu kooku waaw te am na daara ju ne ci koñam man damay dégg léegi ñu naan ay bisu yi ay ay ay carte grise ak ay 4-4 léegi sax dootuñu ma ay 4-4 la man daal man ni ma gisee Sénégal Sénégal mënuñu am jàmm Sénégal yàlla ñu yërëm rek mais jàmm moo fi mënut a am ndax ñépp ñu mus a tooñ yàlla ba wane ko fang di ko tiitaroo yàlla teg na leen yar alam tara kayfa faala rabbuka bi aad irama zaati l imaad allati lam yuxlaq misluha fi l bilaad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد لا لا يالدف فصب عليهم ربك وكأي من قرية أتت أن أم أي دو جيخ ay yàlla di wax ci caaxaankat yi sama yar day tegu seen kaw du jeex ñun buñ fi nekkee war a dimbali julit yi war a dimbali miskin yi war a dimbali dimbalante suñu biir di caaxaan di wonewu di puukarewu ba pare bëgg yàlla defal ñu jàmm dañuy wax rek dañuy wax rek am sa sa technicien bi mooy def si ñett mi mooñ dese ko xam naa ñu ngi lay sant di la gërëm sa maanaam kàddu yi
di sant yàlla tabaraka wa taala di leen gërëm di ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu taxal leen yokk seen mën-mën yokk seen kàttan yokk seeni kem kontaan nañ ci yéen trop vraiment ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax ñu ngi nuyu ki jiite rajo bi ak ñëpp ñi nga xam ne am na luñ ciy def am nañ ci liggéey bi ñu ngi ciy jàpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla bàyyi leen seen sago asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf oustaz Seydi